wala wala an woo bu taxaw doon nga xam ne moom borom moom Yunusa mhm. daana nekk na mel musu bi ne da bokk ci way sàmbali mhm. nee na boo xam bu taxaw nga xam ne Yunusa da def ku tëkk woon sàmbal mhm. leneen bi fekkoon mu sax fii ba nii ci biir jën woowale mhm. ilaa yam yu masoon a dugg fi nga xamee ne bii def leen def nañu def leen ci dekkal soxla mhm. na nga xam nekk saabalkat mhm. ba nga wa wan na ko rek fanaa daa a baat boobu la mu wax koo ci biir biir jën ci lay nekk fekk la ba yow ma xeyam di jot bi ñuy dekkal nit ñuy bàyyi ko ci seen bàmmeel moom ñu dekkal ko mu bàyyeekoo ci jënd. Mm-hmm. mu ne waaye nag moom sàmbalkat la. Mm. mais xam nga xam ne bëggu ne daal ba bisu tey bi ñuy def lépp doomu aadama ba xam ne nii yaa ngi toog xeet yu bëri wala yaa ngi juumte mhm. ba tey itam boo sàmm boo nekkee sàmbalkat mhm. boo nekkee ñaankat mhm. boo nekkee tawlukat ci yàlla borom bi na wa taala dina la baaxee génne la ci boo ko defee nag fan bor naa ñu sànni ko dinaa raay kee ndend ga ba nga xamee ne bii ni ñaan na ñaanal boobu rek la ko jëmi gëpp sànni ko nag ci ci ndend ga comme nga nag fan yëpp mu ngi léegi sotee moom aji wopp la mhm. ba léegi moom feebar na lool daal mhm. waan ba naa ñu soxal xale ci kawam sajaratun garab mhm. ñun yàqatee nañ ci garabu yàqatin mooy naaje genn gana amul benn xob bu fa nekk naaj képp moo fa nekk waaye man yàlla pour mu baaxee ko ma faba ci saasa rek laa sa laa laa fa soxal benn garabu naaje garabu naaje kooku moo law ci kawam moo xam loo xam ne li ni na koy ketal wattu koy wattu koy dem ci ngelaw ba nga demee nag mu dellu dekki mhm. ba mitaat mhm. bu baax mhm. ba yi ko métti woon ñëpp jeex ci yaramam waaw sa naa ñu dellu ko yónnee at la waaw ba tey maa ko ba tey mu ngi mat yónnent oh. waaw ba tey rek ku ma yónnent da nga xam ne boobu moom mun ne mun moom moo ko sañee wax moo wax ko waaye nag euh, ku mat yónnent la ndaxte waaw sa naa ñu yónnee at ne at aw yasiduuna wala sax ak ku ne téeméeri bu néew bi aw yasiduuna aw yë aw wala sax aw mhm. aw li fi nekk sax mhm. yasiduuna ku ne sax téeméeri bu néew bi ma dellu ma yónnee ak aw xeer boo xam ne bii téeméeri bi néew lañ mhm. ak ko sax téeméeri bi néew ba amoon na ñun ñëpp ñu gëm gëm ñoom ñëpp ko gëm ama la jëm ci gudd ci ba sartee na nga lay na nga lay leen. Mm-hmm. yàlla ba nga ndax ñaanal na sa borom albanaat doom yu jigéen. Mm-hmm. ba doom ñaanal leen ñoom ba noonu doom yu góor. donc xalaat na wala bind nañu almalaayka te malaaka yi. Mm-hmm. bind nañu leen innaa sa jigéen. boo mënoon saa yi doon seere lañ. ndax dañoo bind malaaka yi. ba ñu leen def leen jigéen ñoom ñu fekkee loolu lañ. alaay lañ ne. ñu ne woon naka ñoom. ñu ne fii bokk nañ seen nar yi. dañoo xool loolu dañuy wax ne. wala dajbur na allahu yàlla mm-hmm. wala ni moom naka ñoom mm-hmm. dakaa su boona wooyu fen lañu mm-hmm. seen leen seen fen yi dem naa dema dem ba sax ñu mel nañuy wax kàddu boo xam ne génne ñu naan doomu yàlla asaba ndax jo ndax tànn na yàlla. albanaat doom jigéen ak albanaat yi ci doom yu góor. maa la comme lay ñaar. day ba tax mu war a ngeen a yaatee. abulaat sa kër yoo xam ne da ngeen fàttali da ngeen fàttali. am na combat mhm. ñu ñaan na leen comtaaram lay mu gën boo xam ne gën bu bëri la mhm. di ngeen mën a wax mhm. waaye toon na ngeen liggéey bi gitaabi te bi seen téere bi ne gën mooy naa seere loolu la dañ ne saa yoo xam ne di wéy fa jaaloo dem na ñoom yéefar mhm. yi bay na woo diggante yàlla mhm. ba bàyyi na jinnati ak diggante yàlla ak jinne yi mhm. def nañ ci nasaban ak askanoo ñu ne yi kan ñu mat a lañu naata ñoom ñoom malaaka yi benn lañ te malaaka doomu yàlla la ñu ne jinne de moom malaaka benn lañ te malaaka doomu yàlla la wala jinne yi kan ñu mat a la loolu la ñuy wax wala sax wa def nañu bàyyi na woo diggante yàlla ba bàyyi na jinnati ak seen diggante yàlla ñaata jinne dinañ firee malaaka itam boo mhm. moom dañ ko dañ ko firee foofu la mhm. dem nañ ci wàlla saban ak xartan mhm. wala xanaa li ma xam ne aljinatu jinne yi ñu ne woon naka ñoom la mu doon ñu ñu teewal lañ ci kanam yàlla ñoom jinne yi nag xam nañu ne doomu doomu yàlla loolu gënuñ leen ko war itam. mun mhm. na dañoo defoon ne daal. niñ mhm. yaakaaree ne jinne ni la fa ni la xamee kumpa. Mhm. ak ni nga xamee ne mbir ñi lañ cee sàkkoo xaybu. dafa am daal lu ko boole yàlla loo xam ne mu ëpp. li boole ñu teg yàlla. màggal googu noonu lañ demoon ba ne daal. ñu ma ko màggal lañ ndax doomu yàlla lañ. waaye nag wala nga xam ne man xam na aljina mhm. te yi. dina woon naka ñëw na dogal ñu teewal lañ teewal lañ yom a xeyaam. te dañ leen laaj itam. Mhm. subhanallah dina ma seetlu ak yàlla. Mhm. amaa ci li nga xam ne ñu si xool ñu koy fent ci wax ju ñaaw. dañ leen ci bëggal de. ilaahi baara laa ndara jaam yàlla yi a si na ñëpp ñu sellal ñi. ñoom dañ ca mucc. te yéen nag nii. ba ma àlla nga tax bu doon yéen a ngi koy jaamu jaamu xewal. maa antum di faat ñi ngeen di fu nar kenn mm-hmm. xale yi ci moom mm-hmm. ilaa xam ne kii ne moom sali jéem aji tàgg sa wala la mm-hmm. yéen daal lii ngeen a jaamu te ay xerem yooyu ñu ngi leen a yëgal ne man leen te a xomat kenn nit dugal ko fii dara nit koo xam ne kii ne rek dafa mën a tàgg sa wala kooku rek ngeen ci mën a dugal waaye nit koo xam ne kii ne mu ngi am gëm yàlla doon nit ko àjjana kooku man leen a fexe ba dugal ko ci xerem wa maa min dañoo waxoon ne alxuraan am na ci loo xam ne nii dafay wàcc. Mhm. fekk ay malaaka malaakaam lay jàngale. Mhm. su ko defee loola buy wàcc day mel ni mu ngi wàcc ci làmmiñu mhm. loo xam ne nii dafay wàcc fekk yonente yi lay jàngale. su ko defee buy wàcc dafay wàcc mel ni ci làmmiñu yonente yi la wàccee. liggéey ba maa adduna maa yefalu bi wala bikum. loolu boo seetlee demee ci yonente bi day dellu. ci kàddu gi moom kàddu alxuraan la. lu dafa am tam ci wàllu malaaka yi. min kenn ci malaaka yi mhm. illaa la woon dara ñaan na ko maqaamu dara eh, taxaw taxawaay mhm. moo la woon boo xam ne bii ne bu ñu xam la mhm. malaaka yi malaaka mu ne am na foo xam ne bii nii balaa jaamoo yàlla comme ni nga xam ne nit ñi am nañu place yoo xam ne seen jàkka lañ ko tuddee dafa yàlla malaaka yi ñoom itam malaaka mu ne am na foo xam ne bii nii balaa jaamoo yàlla waaye naa naka ñun la mm-hmm. naa nu ñun malaaka yi mm-hmm. saafoona way sàppe lañ mm-hmm. waaye naa naka ñun la naa nu ñun musabboona way sàbbal lañu dañooy sàppe di jaamu yàlla dañ koy sàpp dañ koy dañ koy sàbbalal itam nee naa a alxuraan nee na. wéyum mhm. kaaba nekkoon na ñoom ñu bëri la ñu xooloon de wax ne. dafa a danaa bu dëkk bu nekkoon ci ñun. Mhm. zikran ak waare mi a la wala la ca wala njëkk ya. Mhm. su fekkoon ne ñun daal. ni yow di amee téere. musulmaan yi amee ko téere. su fekkoon ne ñun suñu maam yi jiitu woon amee amoon nañ ko téere. ne bii ne wëcc nañ ko fi ñu di ci waaroo. kon la ku naa ñu nekk ibaadallah di jaamu yàlla yi ak moom suñu ñu ñu ñu sellal. ba ko borom nga defee ñu weddi. ñu ngi ci téere nga xam bii nii moom la moo bëgg boole ñu wedd ci téere bi mhm. gannaaw boo xam bii nii alquran ñëw na nag mhm. ñu mu ñëwee ñu wedd ko mhm. te ñoom ñoo doon wax ne daal bi ñu amoon téere na ñoo xam mu jëm seen téewóor bi nee na wala xam sa naa suñu kàddum limbal daane bàyyi naa ñeen suñ jaar ak naa wax ne danaa leen dimbale mooy laa wax le ban ana waru su wala sax kàddu ga moo ne ne wax wax naa waxoon naa ne. indoomu mhm. naka ñoom. Mhm. lahum ñoom. Mhm. alman soo doon ñëw dañu ñëw jël ñoom. waxoon naa wax loolu de. dina ma ko waxoon tam naa ko def. waxoon naa wax itam ne. waaye na jënd naa naka suñu leen. loo xam ñoom alxaale ko ñoom man wóor na dina ma ko waxoon tam naa ko def. ba tawala naka du moo ne xam ci yow. Mm-hmm. ak rajo yi ba dégg jamono. bu ñu la santee nga xeexal ñoom. Mm-hmm. su boobaa na nga xeexal ñoom. Mm-hmm. waa Firawna. nee na nañ nañ leen xamal. nañ leen xamal ne mbugal a ngay ñëw. fasaafa yëpp si loolu xeex nañu nañ leen gisal. da nga leen wan ne leen mbugal a ngay ñëw. fasaafa yëpp si loolu xeex nañ ko gisal seen bopp. afa yastajiloona ndax dañoo yàkkamti bi asaabi naa ci suñu mbugal mi mhm. baala dañ ko yàkkamti mhm. mbugal mi motul yàkkamti de mhm. ndax faye sa nasi la bu wàccee bi sa xate yi ci seen i ëtt boo xamee ne beneen mbugal na asi na bu wàccee ci seen ëtt yooyu yàlla day xasaar ñaaw na mhm. te bawal mu mun sa diine suba si ñu ngi waat mhm. su boobaa nee na suba bu ñaaw ak ñaaw la ñuy am mhm. du mooy suba suba si mbugal ata wala na nga du mooy rek anam fi am xataa yéen ba diitu jawoon waaw seen nag leen wan bu baax rek ba sama yëg si woon a xas na ñuy bëgg subhaana rabbika waaw na eh, lool sa sell ak na ma sa borom. Mhm. kay borom ak teraanga. Mhm. kay borom ak noteel. Mhm. moom maa ngi si bon ci li nga moom la ñuy fenn. moom la ñuy mellal. moom mucc. al mursalin nekk ci ñu yónni ñi. walhamdu yàlla borom bindee bi. jaamu na ko. di sikk ndax jaamu yàlla googu nag sell na wala sellul mhm. te bu sellu dee duñ ko fay mhm. jaamu yàlla googu nag su fekkente ni daf koo tëjee ci subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun mhm. wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin su ko yàlla peese peese waaye dañ ko peese peese boo xam ne nii bu ma sëkk la jaamu yàlla boo xam ne buñ ko peese woon peese poids bu woyof lay am suñu ko tëjee subhaana rabbika rabbil izzati poids bu diis lay am jotaay boo xam ne bi tëjee nañ ko itam mm-hmm. jotaay boobu de bàkkaar yi nga xam ne yéen moom lañ fa defoon mm-hmm. jotaay boobu de jotaay yooyu de mm-hmm. te koo woon na ma ci mu jëg saar saar yooyu mooy saaru saar wala nga ne mooy saaru daawuda saar borom bi tabaaraka wa taala moo xam lu mu jublu wa quraan giñ naa mhm. ci alquran su zikri kay borom ak fàttali mhm. saad mhm. wal quraan giñ naa ci alquran su zikri kay borom ak fàttali ne ni ñu lay weddee ne eh, eh, giñ naa ci alquran ni borom ak fàttali ne mbir mi melu ni ñoom ni ñu fase ñoom yi fëri giñ naa ci alquran ne mbir mi melut ni ñu fase ñoom yi fëri dinañ weddi rek. Mhm. bala ñu nekk àll bi gaa ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ. yéen mhm. ay sotin dañoo nekk ci jomlu. Mhm. bu su xaaxee dañoo nekk itam ci ci ci ak yow. ak jomu jom jomu lay topp. loolu rek moo tax ñu la weddi. waaye xam nañ ni nga weddi lu leer la. xam lu bëri mhm. alan na alal nañu min xam leen ci seen njëkk min xam leen mhm. ci xeet fii cig maar banaa daw ñu woote mhm. ba mbugal ma ñëwee ñu woote bëgg a mucc te xëy na ma naafin te jamono jooju duwul jamono a joo xam ne jinne mën nañ ciy daw maa jiboo yeewu nañ andiaawam bu dëkka leen lu fi mu ajuwaare ñu nañ ci ñoom waxaala wax na alkaafiroon yéefari ñaxaasa kii de woote saaxirun jéeméem la mu saabam yoo xam ne jini ngindi akoon la ñi mhm. ngay wax ne mhm. a janalan mbaara dafay def mhm. alaaliha fa xelam yi ilaa muy muy bu muy yàlla waaye dañ ñi génn mbaal la ñuy wax ne xeeti yàlla bi fi nekk yëpp benn la dafay wax naan laa ilaha illallah naa daanaka lii yàlla yi jënd yàlla rek moo xam da soyoon mbir la ma jaabul loo xam ne li jéggi dayoo ci njéemu la ma jiibul mooy ak yéemu ma jaabul mooy li jéggi dayoo ci njéemu nee na ba nga xamee ne yow yonent bi yaa ngi woote. Mm-hmm. wante la nga boole na alwal almalawu mbooloo mi ba nga xamee ne bii ni yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi woote mhm. mbooloo mi wër la gën a déglu mhm. am na ñoo ne ñu ne mhm. ba rocceekoo nañ ci mbooloo ma di dem seen yoon am na ñoo xam ne ñu ne rocceekoo nañ ci mbooloo ma wante la xa booloon almaloo mbooloo mi noonu si ñoom bàyyee la foofu nga def jéew da dégg ñu lay wax naan an naka lay mbir suñ soo soxleen rek mooy di leen dox rek ñun soo soxleen mm-hmm. was boroo muy léegi dama la alaytukum ci seen yàlla yi mm-hmm. inna haasa naka léegi mm-hmm. la sayoon bët la moo xam ne mii nii jaamu xerem bi ñuy jaamu xerem la sayoon bët la moo xam ne mii nii wéraal dañ ko nam ci mbir ba nga xamee ne bi ni ñu dajale nga mbooloo mi commencé da waare day wax nit ñi déglu mm-hmm. day wax nit ñi déglu mm-hmm. na yéefar yoo xam ne yéen dañoo bàyyee ko ci mbooloo ma mm-hmm. ni ñoom ñi ngay ñëw seen kër ñu la wax ji bu leen tax a bàyyi nekk leen ci rek sox leen ci rek ndax lii nga xam ne léegi moom lañ sàkk ci ñun mooy jaamu xërëm maa sami naa ñun dégg ñu yu mujj yi nga dégg ci diine yu mujj yi inasa den de mhm. ilaxti laa xam rek tent rek mhm. lii tent la lay waaye amul mhm. ñu naan amoon si la ndax danañu wàccee ale ci Muhammad asikro alquran nit bàyyi naa ci suñu diggante te doon ne moo ci mag doon ne moo ci gën a faalal doon ne moo ci gën a tedd alquran da wàcc da jàkk ci moom loolu nan lay amee nee na bal li mu nekk moom ñoom fii sukkan dañoo nekk fi sikk mm-hmm. dañoo nekk fi sikk ñu sikkiree ci sama waare man yàlla bal mm-hmm. li mu nekk li tax ñuy wax damaa mm-hmm. yees waxoo dañoo moso ba nga saa wi sama mbugal nekk na fa ñoom fasaa ina nga xamante la dëgg maa ngi téye ni yéen maa ne si borom arrangé si borom bi nga xamee ne bii aji noonu la ak xaalis borom bi nga xamee ne bii aji mane la am ndawam ndax ñaal na leen bu ko suna waatu mbuuru xasumaani wala abdi ak suuf amaa la nga xam ne moom la nekk mu seen diggante lekkente mhm. ne ñoom ñoo ko moom waneet mhm. sa xool na ñuy yéeg mhm. ñu def base ci yoon yi leen di def yi leen di yóbbu ci asamaan dem ci asamaan indi fa woon yu jaboo ko ñoom wala ñu dem ci asamaan indi fa xiwal jaloo ko lekkente ne ñoom ñoo gën a yéeg kon na leen dem wutali seen bopp xëy bu ñu jaboon ne ñu ngi dem asamaan tey bu ñu jógoon ne ñu ngi bëgg a ñu ngi def asamaan. Mhm. nee na jumbuñ leen. Mhm. maa leen bu mënti doon. Mhm. nee na lu leen lu ab arme. arme lu mu rëy rëy rëy bu jógee ne mu ngi def asamaan. mun naa lekk foofu de. moo soomu lu ñu dàq. nee na arme lu mu rëy rëy rëy bu jógee ne mu ngi def asamaan. bala muy dem fenn dañ ko dàq mu dem. minal ansaabi ci kuréel yi mhm. nee na jundun leen mhm. maa ne bu mën doon mhm. on naa le ko foofu la ca bu jógee ne mu ngi dem asmaan moo soomu lu ñu dàq la minal ansaabi laa la moom kuréel yi la ka sabar we dina xabloom mm-hmm. dinañ nekk xamu nooye nit ñoom wanaatum nga xam ne bii mm-hmm. na dafa yoo xam ne yéen i mm-hmm. moom la daan déndee képp koo xam ne kii nii nar na ne moom rek moo fi nekk moom itam weddi woon na ba sa moot ba xamu looten waa saawu laykati ak ñi kité ba mooy ñu dëkk woon ci kutu ba su mu ni si soy bu ya walaayete ñu ñu la alam saabu ay kuréel kuréel yoo ne yéen ñi wéddoon nañu yàlla mhm. ñu ko loolu def kenn def kenn ci kuréel yooyu mhm. ilaa ka soo na boo xam ne yéen ñi wédd na àll suñu yonente de mhm. ñoom ñu wédd nañu yonente yi ndax boo wédde benn yonente wédd nga yonente yi nañu xaabis ñoom dugal ba bugal waaye boobu ñu dëkk bu naaw laa ñi dee yore seen jëkkër bi. ilaa fay a lu muy xaaju waaxid bu muy benn. am mhm. naa laa boo xam ne bii ni ñeelu ko. ñu mhm. ko waaxee ci bëggante. Mhm. nga xam ne soo xasee su su su nga xaajoo daal. yenn yoon rek laay doon. li tax mu doon benn yoon mooy liñ bëggoon moo xam yëpp daf cee amee. waxaala wax nañu ne mhm. rabbana yow suñu borom xajjil mhm. gaaweyaan mhm. danaa ñëwal ñu xitt naa suñuy bom mooy xitt mooy sec da ngay dégg ñu naan dañu ne bu yemal xeyaamee kenn ku ne da yor ay kayit yoo xam ne yéen ci lañ laa fayee ne bu dee loolu kay man suma segu man bu ma jotoon léegi fayee ko man am xaalis man nekk xaalis suma xaalis soo àjjana bu àllaakalaa bu xam yàlla mu yóbbu ma ko da dégg ñu wax daal na ma su fekk su fekk ba ma ñu jox ma sama sëñ. ba tey rek nit ñi dañ koy wax. wax mm-hmm. mm-hmm. jël gaal yàlla naa ñëwaat ñu xëtt naa suñuy këyit. suñu mm-hmm. sec bi. sec bi nga xamee ne bu yemal xëyaale moom la ñu tàllal rek. ñu ne kii de kër sàngam la war a dëkk ci àjjana. sec boobu la ñun buñ ci jota buñ ci jotaale woon. jël ci ñun benn sotti ñun tawa tawaale ñu ñëw ci <laughs> ci kaw suuf. xam nañ yaa ma ni saa ba njëkk bi du misaab ba. loolu la ñuy wax. waaye loolu yéen ji yéen ji moo tax ñi ko. naata mm-hmm. day wéddi moo tax ñi ko. naata mm-hmm. ñoom motu ñoo jëm sax jëm bu baax. Mm-hmm. waaye is bi na nga muy rek alaama ci na nga xam ne yow xooloon na ñu ngi koy wax. parce que na nga fàttali ma ab naag suñ jaam. daawoo da daawoo da. sal ay di kay borom mu kattan. suñ jaam bi xam ne nii dina mooy. daawda mhm. te muy yoroon kàttan lool jaam mhm. la boo xam ne bii bu baaxoon la mhm. te teewoo la dinaa wax ci moom wax yoo xam ne yéen ñu ñaaw la nee na nga fàttaliku ko inna nag moom daawada moom la aw waawoon dellu xaakoon la jëm ci yàlla inaa nag ñun saxar naa tàggatal nañ tàggat nañu aljibaara dañ maa waxande moom sa bés la ñuy saabal dinaa suyee ci ngoon wala usraata ak suba mu ngoone ñu ngay saabal ànd ak moom mu subaa ñu ngay saabal ànd ak moom waxtaan yëpp dañ ko mm-hmm. tàggataloon moom soogatam lu ñu pang la mm-hmm. yëpp nga xam ne bu mu leen xooyee rek ñu ñu xëy si konoon mm-hmm. képp ci yooyu awaa moom parce que danaa tasaloon nañu mur ko nguuru daaw a daga nee na defoon nañ ko muy nekk nguur boo xam ne yéen nguur bu dëgër la ndax dama ko mayoon ay garde ci malaaka yoo xam ne yéen ñoo ko doon garde waa tey naa jox nañ ko an xikmata xam-xam muy nu bóor wa mm-hmm. fadlal xitaab yi jox nañ ko itam mm-hmm. xam-xamu xatte eh, mm-hmm. xam ne mii na la mën na koy xatte ba mu leer nañ waala taaga ndax na la yow yonente wala dikkal na la xas mi xibaar wala xuloo xaale ya bis tasawwaroo ba nga xam ne ni yéeg nañu al mihraaba mihraabu daawuda mihraab bi nga xam ne ni bii nii ci la yonte yàlla jaamoo nee na mihraab boobu le dafa ay gaa yoo xam ne yéen dañ koy yéegoon dem jaar ci daawuda ndax xabaar boobu yow mosul lay dikkal wala mosul lay dikkal a mooy i daxaloo ba ñu tàbbee na la daawada ci daawada comme ça ba nga ko defee daawada téeg ñu luñ ci ñoom mm-hmm. daal mm-hmm. li ñu xamoon ci koo xam ne kii ne dafay xàtt si mm-hmm. dafa wér da fekk koo xam ne kii ne mu taxoon na mu jaaxle ci xes la boo xam ne moom itam daal am na yu njëriñ yoo xam ne yi li nga xam ne ni la doon nag moom la ñuy nekk di mhm. nga xam ne daal mooy li ci am daal mooy ni ko li ñu yaakaar ne mooy li ci am mooy ni ñu ko bëgg a waala la taaka ndax digal na la yooyu yonent bi nabawul xas mi mm-hmm. xabaar yi woy xuloo ya mm-hmm. di sa sa ba ñu yéegee al mihraaba mihraabu daawooda mm-hmm. daawooda dafa amoon yoo xam ne yi ne daf ci daan xàttee ak jamono yoo xam ne yi ne daf ci daan jaamu yàlla place bi nga xam ne fi la daan jaamu yàlla nag mooy mihraabu jàkk ji mihraab mooy fi nga xam ne fi la xilimaan di taxaw mu toog nag ba nga xamee ne jaa yi xatte na ba wàcc mhm. dem na ci place bi nga xamee ne bii nag fi la daan wéet mhm. dafa wéet ak borom bi tabaraka wa taala da ko jaabu mhm. ndiki too xam ne ay gars yoo xam ne yéenee wala ñu dem jaar ñu ñëw ci bëccëg xattelu wala ñu jaaree ci buntu jàkka ji ñoom dañuy yéeg ba ca kaw ñu ñu ñu ñu cëppali ci miraabu daawada bi isaxaloo ba ñu taag be nag xaala daawada ci daawada mhm. ba far sina bu ñu ko defee daawada téeg binum mhm. ci ñoom mhm. xaala ñu ne ko laata xam bul ragal fas maa ne ñun ñaar lañ ñoo xam ne ñaar ñaari woy xuloo xaal nañ daawada nag téeg na damay xatte bu guddee damay jaam mu xam ñaar nit ñoo xam ne ñu ne seeni ñàkk teggee ak seen ñàkk yar àgg na ci nañ ñu toog a toog bu guddi ñuy yéeg miir ba dafa fekk boobu la ci mihraab ba mm. tax na ba promotion jaa jàpp nañu ñun ci ñoom mm. ba mu jàppee mm. waxaa xaaral ñu wax ko ne ko laata xam buur ragal. xasmaani ñaari wéy ko lañ. ñu ne ko ñun buur ragal. ñu ne ñaar nit la ñoo xam ne ñii dañ doon xuloo. ñaar la xam ne ñii dañ doon xuloo. baxaa beew na maa xam naa lenn ci ñun mm-hmm. ala baax den ci lenn wax comme na nga àtte bay naa suñ diggante ba xaq ci dëgg mm-hmm. wala kustate bul jéggi dayoo moo mm-hmm. dinaa nag ñu jubal ilaa sawaa istiraati jëm ci diggu yoon naka ñun daal ñaar gaay la ñoo xam ne ñi ngi dañoon xuloo kenn ci ñun moo beew ci morom ma na kon nag nag ñu àttee ci dëgg. Mhm. àtte boo xam ne beneen doo ci jéggi dayoo. Mhm. dañoo jubal itam jëm ci yoon. Mhm. ba kilifa bu yem ni daa war a. nga xam ne borom bi tabaaraka wa moo ko jàngal. xamal may ko xikma. may ko nubuwa. may ko itam xosu xitaab. mu ngi taay ñëw ci moom da ko àtte lu. loolu doyul. nga naan ko xàtte ñu ci dëgg. loolu doyul nga naan ko jaar nañ ci digg yoon yi. loolu yëpp jikko bani Israayil lañ. gaa yi doon wax Moussa naan ko. iñaan la naan inna illaa anta ma'akum aaliha ñoom la rek mhm. ñoom loolu def dañ ko yaakaar def ak toon noonu nañ ko Moussa banaan mhm. ko ne Moussa wutoon ñu xiram mhm. toon la toon toon noonu nañ ko Moussa banaan ko lan nag bi naa laa taxawen waaye de kon loolu lañ ko Moussa. Mhm. Eh, mhm. mhm. ba ko. lan na mu jaarata. jaarata. kon loolu lañ ko Moussa. ba naan ko Israëf ante war ko fa xaat laa ilaha illa anta ko. ba yónnente yàlla daaw rek ba. dañuy xëy. comme ñëpp bi. ko joo xam ne jii dafay jaamu yàlla. loolu doy. ñu naan ko foofu mbay na naa bi xaq. Oh. loolu doyee ñu naan ko walaat tuuti. moo bere ñaan tu wondi naa ilaa suwaayil siraat dañu ko bëggoon a rey daan nañ ko def daan nañ ko ñoom ba nañu saa dañ ko daan def hmm. am na yonent yoo xam ne yii ne reyoon nañu leen ndaxte hmm. reyoon nañu yonent boo xam ne bi ni Sakariya lañ koy wax ak yonent boo xam ne bi ni Yaxya lañ koy wax hmm. rey nañ fi yonent yonent yu bëri rey googu a daan rey yonent yi nag dañ ko bëggoon a boole Daawuda bëgg a boole Daawuda nag moo tax ñu yëg kaw miir bi dem fekk ko foofu nag bëgg koo rey waaye daawara nekkoon na koo xam ne kii nii mm. comme ni yàlla waxee mosul mm. danaa mul ko nee na nguuram bi ñu mm. ko defoon mu nekk nguur boo xam ne kii nii ku tar la woon garde woon lool ñu leen bëgg a rey nag mhm. ñu see seet lu ñuy mën a lay mhm. loo xam ne ne moom la ñu mën a layee ne moom la ñuy xàttilu mhm. ak moom lu mën a layee ñu lay ñu ne dinaa asa naka kii affaire sama mbokk la loo ñaan na ko tisoon tisoon juróom-ñeent wa tisoon ak juróom-ñeent fukk naa jëtan ciy tëng naa jëtan ciy tëng naa jëtan ciy tëng mu ne kii de sama mbokk la dafa am juróom-ñeent fukki tënk. Mm-hmm. ak juróom-ñeent. Mm-hmm. tënk laa wax tënk du oh. <laughs> mooy liy nekk ci jur gi. Oh. dafa am juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent. Mm-hmm. yoo xam ne yéen daf ko amoon. wala ñeexal na ma man nag. naa jotoon benn tënk. maanaam mooy béy gàtt boo xam ne bii du jigéen la. boo xam ne bii juróogul. nee na man na maa ngi ko waaxidatun buy benn. Mm-hmm. fa qaala mu wax ma ne. Mm-hmm. ak fil niihaa. Mm-hmm. wàccee ma ko yarloo ma ko. mu ne ma man eh, sa sang sa benn sang boobu la. jox ma ko. waaw fa nii mu gëdd ma. mun ci waxe. mu ne ma benn sang boobu la. ko. te moom kon mu ngi yore. juróom-ñeent fukki sang ak juróom-ñeent. loolu doyul mu gëdd ma ci waxante bi lool. xaala daawada wax ko ci saasu ne ko mm. la ko bala ma ko tooñ na la bi su aale naa jënd ko ci laaj sa tëng bi mm. itaan yaa ji jënd tëng mm-hmm. benn tëng mu laaj la ko mm. boo koy boolee mu bëri yooyu nga xam ne juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mm-hmm. moom de tooñ na la mm-hmm. waaye nag kese eh, daawara war a tegal ko nag ne ko. Hmm. waaye nag kese lan lu bëri. Hmm. ñu ne xulataay ci way boole yi. Hmm. nee na lu bëree bëri boo gisee ñaar ñu boole gétt. moo xamee ne dañuy dañoo boole gétt. boole wala ñu boole ay jur. wala ñu boole ay nag. lu bëree bari rek. ñaar borom nag yi ñoom xam nañu loolu. dana yab xaar dana beew baax doon lenn ci ñoom. alaat maa leen ci lenn. daawuda moom mm-hmm. itam borom bi tabaaraka wa taala mm-hmm. mi nga xam ne bii ne sañ na ko yedd yedd ko mm-hmm. ndaxte ni ñuy àttee moo de ne fekkente ne ñaar nit dañuy ñëw kenn ki bu waxee problème bi pare da war a déglu moroom moom itam mu wax problème moom ba xam na ne mbir mi demee waaye nag ki njëkk ki wax. Mm-hmm. bi mu waxee ba daaneel rek. li mm-hmm. saa nga àtte ci dégloo dégloo ku ñaareel bi. Mm-hmm. loolu itam borom bi tabaaraka wa taala. tuddee ko njuumte ci daawooda. comme ni mu waxee woon rek. ca yorum sa. ne waxu mu néemul. ak comme ni mu waxee woon ca daawooda ca aadama. Euh, ne waxase aadamu rabboo fa aadamu rabboo fa xawaa. nga xam ne moom moo ko ci sañee jàpp. waaye daawuda xam-xamam àggoon na ji mu xam ne lii mhm. wax la yoo xam ne ji ne dañ ko layee rek mhm. waaye li ñu bëggoon du lii mhm. li ñu bëggoon mooy rey daawuda comme ni ñu reyee woon Sakariya moo tax bi mu waxee ci saas rek mu tontu leen ne leen kii de liw kii de tooñ na la borom bi nag nga xam ne moom yar na sañ na ko yedd mu yedd ko ci gaaw a tontu bi mooy leen nag la la yow xaa dana dana dana beew ba nga doom leen ci ñoom xalaat maanaam ci lenn illa la dina daal ñi nga xam ne amono gëm nañu mm. waa am loo te ñu jëf asaali xaati jëf bu baax mm. waxaleelum ak ñi ak bu ñëw nag mm. maa maa la nga xam ne moom ñooy ñoom mu ne nag bët boobu dañu jaxasee gétt jaxasee xar wala ñu jaxasee nag nee na beewante dana nekk ci diggante ba da cay mucc daal mooy ñi nga xam ne ne dañoo gëm yàlla si daan def uh, lu baax mu ne waa ñu xew ba nga xamee ne gars yi dem nañ nag seen yoon. Mm. daawuda seetlu ne. Mm. ba kenn ki ba mu waxee rek la tontu. Mm. dafa waroon a xaar bu morom mi wax. a tontu. na jot nag daaw daawuda. ànd maa xotam nag ne boo tuul daal. jot nag ne. gars daal natt lool boo xam ne bi nii. yàlla ma ko nattoon. di seet boo xam may àtte. àtte bi dinaa ci jàng wala du ci jàng. te li mu waroon daal. mooy ku njëkk bi mu waxee. ma dellu ko ñaanal bi su waxee. Mhm. su ko defee ma door a boole ñaari wax yi lu mhm. àtte ba laaj ma laaj loola fastafara mhm. moom ko defee mu jégalu a moom boromam mu jégalu yàlla nag ci gaawaate gi nga xam ne gii nii gaaw na koy àtte diggante ñaar ñu ñu de parce que waqarra mu root sa rakkaan ko ndax mu jégal ko li nga xam ne ne borom bi tawa gaawaate gi nga xam ne nii gaaw na koy àtte waa naa ba mu ko demee mu tuub jëm ci yàlla mhm. ba xabar naa ñu jégal la woon ñaar ko saa rek gaaw xatte boobule mhm. ñu jégal ko nag gaaw xatte boobule mu gaaw xatte mhm. gaaw xatte gi sax dafa fekk xaal di wartul àtte ci xam-xamam boo demee ci tëri ko xëy nag nga ci fekk waaw bi boobu atte ci xam-xamam mhm. ci mandarga yi ci la war a atte mhm. xam-xamam nag li mu ko mayoon mhm. moo ne gaay gaa yi eh, lu bon lañ daan def moom nañ bëgg ñaare laa moo tontu leen tontu bu mel ni seen wax ji waaye nag xaar bi ci mandarga la war a atte dafa waroon na xaar ba ñëw ñëpp kenn ku ne joxe mandarga nee na ma jégal ko ba mm. xaman naa ñu di loolu ñaan ko saalika loolu mm. naata loolu daanaka dool bàkkaar mm. dafa fekk rek ni xasanaatu abraar sayyiaatu muqarrabiin dafa fekk rek nit ku baax li nga xam ne nit ku bon la mooy def ñu naan na loolu la buñ demee ci nit ñu baax yi moom moo fay lu ñaaw ne way na loo ñeel na ko mm-hmm. moom daawada moomu la mm-hmm. indi naa fi ñun la fuppa ak jegeñ mm-hmm. nee na daawada man yàlla bu ma jegeñi jegeñ jegeñ la woos na maa min dellu ñu ne ma ne yaa daawara yow daawara inaa hmm. naka ñu jaal naa ko def nañu la xalifatu ngay xalifa fil ardi ci suuf hmm. ñu ne ma ne daawara léegi hmm. man yàlla def naa la nga nekk suma xalifa ci kaw suuf wax comme na nga xaate bay naas diggante nit ñi balaa ci dëgg walaat la bayee bul topp alawaa sago li yëpp fa yitte la ko mu sànq la am sa biyee daa ci yoonu yàlla ina la dina naka ñi nga xam ne yitte la ñu sànq am sa biyee daa ci yoonu yàlla lawoon ni yàlla leen asraabu mbugal so déer mbugal moo xam ne ni aji tar la sababu naa xam ne koo fàtt nañ ko. Mm-hmm. yaa man xisaab gis ba nga mm-hmm. mm-hmm. noonu la ko tafsir Maraaxi firee. noonu la ko Ibnu Kasiir noonu la ko Jazalaa'il euh, moom itam. noonu la ko ki ñuy wax mu def tee li ñuy wax ahkaamul Quraan mm-hmm. moom itam noonu la ko firee mm-hmm. noonu la ko Abu Hayyan mm-hmm. firee moom itam ci Bahrul Muhit wa maa xalaqnaa binduñu asamaa kaw asamaa asamaa wala ardi ak suuf maa baynahumaa ak li nekk seen diggante baat nañ ci nee na diggante asamaan. Mhm. ak suuf nee na nekk bind ñu ko ci ci neen. Mhm. zaalika loolu la. Mhm. te mooy ne asamaan dañ ko bind ci neen. wàllu la si ne mooy jotee ñu nga xam ne kafara wéet nañ. waaye lu mu toogte. ñu la si ne ñaan ñi nga xam ne kafara wéet nañ. ñu ne naar ci safara. am na ñoo ndax nañu def àll si ne gaa ñi nga xam ne amoon gëm nañu. waa mi loolu te ñu jëf ak faalihaat jëf yu baax. kan moom ci diine ndax dañu leen def ñu mel ni way yàq yi. salaat di ci suuf. am na ñoo ndax nañu dal mhm. ak moo taxee na way ragal yàlla yi mhm. ndax dañu leen def kat bu jaar ñu ñu mel ni way jëriñ yi ñu mhm. taamoon ni ab téere la asal naa boo xam ne wàccee nañ ko idéy ko jëm ci yow mu baara ko muy téere boo xam ne bi ñu barkeel la di nga dabaroo ngir ñu fàttaliku ayaat yi ay ayaat wala yéen sakara ak yéen fàttaliku di nga dabaroo ngir ñu settantal ayaat yi ay ayaat wala sakara ak yéen fàttaliku ulul albaa borom xel yi waaw naa may nañu di daawara ñeel daawara Souleymane doom bi ñëw Souleymane. Hmm. nii mu baax na alam bu jàmba. Hmm. dina war naka moom dayee Souleymane. Hmm. aw waawoon delluwaat koom ci yàlla la. nga fàttali ko Ismaël la. ba nga xamee ne gaaral nañu àll yi ci moom. dinaa suy fi ngoon. ak saa fi naati fas yéene woy loxol. soo fas yéene woy ak saa fi naati fas yéene woy loxol. ak yaari fas yoo xam ne yéen i wéy rafet lañ. fas mhm. yoo xam ne yéen i yu rafet lañ. Mhm. yoo xam ne yéen i bu fekkente ne bi ni ku ñëw na. Mhm. bu fekkee ne ñu ngi noppalu. da ngay gis ñu taxawee ñetti tànk. benn tànk bi moom ñu xomal ko. nee nañu loolu moom la ñu wax loxol ci fas. nee na yow dafa faqaala bu wax ne mhm. indi yee naka man ahbabtu sopp mhm. naa mhm. hubal xayri xayri sopp ak fas an zikri rabbi waaye walis fàttaliku sama borom hubal hubal xayri sopp fas waxaala mu ne inni naka man ahbabtu sopp naa xubbal mm-hmm. xayri sopp fas mm-hmm. nee na man daal fas dama ko bëgg lool mm-hmm. an si ko rëbbi wala sopp suma fàttaliku suma borom xataa tawaala ba jant bi muur na bi ni jaabi ci kiiraay nee na dafa am benn bis comme ni ngay gisee borom armée yi daa am benn bis yoo xam ne yéen dañoo def duuf ñi li da ko def seen ci ci seen armée yi génne maa kii gànnaay yi wane bi hmm. génne na ne wane génne na ne wane hmm. dafa am benn bi nag Souleymane nekk ci waataayu jaar hmm. jël fas yi nag di génne di génne di génne ba loolu nag nee dafay nekk nekk xataa tawaar bi ñu jaar ba jant bi muur ci biir kiraay yi ci jëf da julli waxtu bi nga xam ne ni moom moo doon waxtu julli bi moo seet daal fas yi daal ak lu ñu rafet rafet daal moom mi nga xam ne kii na ko moo ko gënal. moom la ne ne indi man ahbabtu sopp na. xobbal mhm. xayri sopp fag. Mhm. antu yu la bay wala wala tudd borom. Mhm. bëgg fag doo dox na suma diggante bëgg yàlla. xataa tawaala ba jant bi muur na. ñu ci jaabi ci ci fiiraay yi. mu ne nag doo xaar na ngeen delloo fas yooyu la. àllee ci di dagg. masan ci pomp. ci peere bisoo eh, ci feeri tàkk ci feeri góob bi mhm. nag yi mhm. wala naax ak bokk yi mhm. ba nga defee mu jël fas yooyu le ci li ñuy nettalee mu ne mu jël leen ndagg ci seen de de leen rey ñun ñëpp ndax fàttali gi nga xam ne gi ñuy fàttali fàttali gi nga xam ne yàlla am na ñoo xam ne ñii ne comme marafe mhm. mu ne fa tafixa mu tàmbale mhm. masal de pomp ak pomp mhm. di sooki ci peeri fas yi wala naaxa ak bokk yi mu commencé nag fas yooyu de seen pënd bi nga xam ne nii nii moo tasaar woon ci seen kaw mu tàmbale nag dafa pomp da leen pomp fomp mhm. ba ba loolu wéy mhm. mu placé fas yi nag ci place dem na fantane nañ nañ ñu mhm. ñeneen ñi nag dañoo wax ne daal fas yooyu yëpp daf leen mujj rey dagg leen ak jaar bi di soo a naaqey nekk naa a rey bu boo lëggee doon duñ ko fàttali duñ ko tax a yàlla yàlla nee na wala xat fata naa fi naan lañu Suleymaan Suleymaan nee na Suleymaan fi naan lañu ko waaw xëy hmm? naa ñu. waaw xëy naa ñu sànni ala kursi yi ca kaw làngu naay Souleymane boobale. Hmm. sànni nañ ca. Hmm. moom Souleymane. moom itam mu ngi delluwaat ci wér-gu-yaramam nga xam ne génne amoon na ko. borom bi wa taala nee na yonent yàlla Suleymaan mos nañ ko ci naan ci mm-hmm. na ci na jamono mm-hmm. moo ne mos nañ ko napp mm-hmm. ba am na jamono joo xam ne nit moo jëm joo xam ne ñu ba ñu naan ruuxu mu ngi yore ruuxu wala yore ma ne nag Suleymaan moom tegoon naa ko ay natt wéradi wéradi hmm. yooyu dem na ba hmm. Souleymane kon ci kaw lalam hmm. mu mel ni jëndi leen mu nekk ci kaw lal bi su maanaaw gannaaw mu del delluwaat nag yore wér wér bi mel ni nga daan yore mën a dellu àtte aat comme na xam ne na la ne na Souleymane tegoon naa ko ay yoo xam ne yéen ñii àggoon na ci ci wér mhm. ne waaw xëy na sànni nañu àllaa ko ci ci la lamba. Mhm. teg nañ ci lan bi nga xam mhm. nañ ci jënd dañ jënd neen yoo xam ne jigé dafa mel ni yoru roobu. ngir coono yoo xam ne yéen dal na ci jëmm jooja. coono yoo xam ne yéen coono coono wér di la. subhaanaa wa topp Souleymane delluwaat ci nga xam ne yéen moom ñu ko xamee woon. ba nga xamee ne bii ni delluwaat na ci wet boobu mhm. la xaaral moo xam ne rabbi sama borom mhm. yagfar yal na nga jégal liy ñeexal ma mhm. waaw yal na nga may liy ñeexal ma mu kon boobu laa yan waxee koo xam ne bii ni du yeer la yaa xajan ñeexal kenn min doon lii ci sama gannaaw innaka naka yow ante yow alwahaabu yaay yaay yaay may yaa koon mu ne nag ba nga xamee ne benn yàlla wéral nag moom commencé waat nag di de de de de àtte mhm. comme ne nga xamee ne ay yorom ñu ñu bëgg a wax si mhm. dafay tax ma mën na ay kawal yoo xam ne na ko yàlla mujj Souleymane ba mu ñëwee ca tawat boobale mhm. ba léegi nekk fa jëfandu maa mhm. léegi nekk na jëfandu yoo xam ne na bu baax mhm. mu commencé nañ ko ñaan yàlla ñaan borom bi tabaraka wa mu jéggal ko may ko nguur koo xam ne génn dootul xel ci na gannaawam da koo xam ne yi yore nit yi yore yépp daal naka naka yow yàlla ante yow alwaxaabu yaay noyaa koon fa saxaar naa ñu tàggat la woo ñaar ko arriixa ngelaw mm-hmm. tajiri boo xam ne bii nii dana daw mm-hmm. daa am yi ci ndigalul Suleymaan mm-hmm. roxaar ngelaw loo xam ne bii nooy la ay su asaaba foo xam ne bii eh, Suleymaan taw na nam ay su asaaba fu mu nam rek fu mu nam rek foofu la ngelaw lay am soo yaatee ne tànnal nañ ko tàggatal nañ ko itam seytaane kulla banaayin bépp tabaxaakoon wa mhm. xawaasin ak bépp xuusaakoon mhm. bépp saytaane soo xam ne si ni mun naa tabax mhm. te mu bépp saytaane soo xam ne mun naa xuus ñëpp tàggatawoon nañ ko yéen ci yàlla Suleymaan ñaar ko tabaxal ñaar di ko xuusal ci biir géej gi di ko yëndal xeetu wurus yi nga xam ni moom la bëgg waa xale na mhm. ak ñeneen ñoo xam ne ñii nii mhm. ñeneen ñi seytaane mhm. mu xaral ni ñoo xam ne ñeneen dañu leen jéng filaswaale dañ leen jéng jéng filaswaale ci jéng yi xam ne yeneen ñoo xam ne yii ay seytaane lañ ay yàqkat lañu woon waaye nag Suleymaan daf leen jéng ñu wax Suleymaan ne ko ah Salé Mata wana mooy suñu may. xam nga na nga xiiwal mhm. aw am xiib wala nga jàpp da mhm. xëy na xisaab yi jullit ñi ko xisaab yawmal qiyaam mu mhm. ko bu yawmal qiyaamee nag kenn du xisaab waaye na la woon ñaan la Suleymaan ane naa fi ñun yàlla la sul faara ak jegeñ ñi nee na yonente yàlla Suleymaan man yàlla fii ci sama xabbala li mm. mm. ci sama pay dana Souleymane ku fi jegeñ la ku fi xejju la mm. ba su baa ñaan na ko fi ak jegeñ mu xus ma ma aadin ak rafet ak delloo nee na ñu gis bu rafet la fi ñun bi bu yam ak teeraan mm-hmm. aada ba mu woowee mm-hmm. mooy ba mu ñaanee rek boo boromam mm-hmm. waa nii naka man parce que nit ñi jot na ma seytaanu seytaane jot na ma coono dina seytaane jot na ma ak coono waa saabin ak mbugal waa saabin ak mbugal dana yonent yàlla ayoor borom bi tabaaraka wa taala defoon na ko tawat tawat boo xam ne bi ne tawatu jëmm la woon muy tawat boo xam ne bi ne bu métti la woon waaw boobu nag ci la doon ñaan yàlla mu saafara ko. Mhm. ne ko indi naka mën na ma sonné jot na ma seytaanu seytaan. jot na ma binus bi ci coono ba nga saabin ak mbugal. waaye mhm. eh, borom bi tabaaraka wa taala nag wuyu ko. Mhm. da ko nangul ñaan. ne ko. wóorkul na nga door. di liñ li ko ci sa tànk. di jëlal sa tànk nga door ko suuf. ba nga xamee ne ay yow ba dem na ni tabaraka wa taala buñ ko woon ñun tànk bi dóor ko ci suuf ndànk uh-huh. noonu rek eh, ndox ndox génn ndox moo xam ne mi ne mu nga yoon di uh-huh. dóor bi nga xam ne génn yoon la doon tànk boobu uh-huh. ñu ne ko nag aasale moo ko doon sangookaay la baara dun boo xam ne bi ne mu sedd la wasoraa bu naan la itam moo xam ne génne mu nay saafara yaram na nga jël ndox moomu da nga sangu ji naan ci ndox eh, naan ji bu ko defee mu sangu ci ndox moomu da naan ja lépp tawat boo xam ne mi ne woon na ci yaram wa rek foofu la ko borom borom bi tabaraka wa taala saabara woon mooy dama am na ñoo xam ne ñii nii lu bëree mhm. la meloon naa la meloon. Mhm. waaye nag lu jiitu ñun li nga xam ne moom lañ jàngoon ci tere mhm. dox diggante moom nit ñi. ba daal lépp loo xam ne dañuy dañ ko nett ci ab yeneen te. bu ñu ne tawatoon na tawatab sàngam. feebaroon na feebarab sàngam. dañuy déglu ba xam. feebar ba yow mi koy nett ñu ngi lay déglu. soo àggee moo xamee ne bii. bu fa feebar àggee nit kooka la nit ñi dañ koo daw rek mhm. léegi sa sa wax jooju dañ la koy delloo maanaam mhm. liñ jàngoon ci territoire yi moo ak yeneen dëkk mhm. gaa danay feebar comme nit ñi feebaree waaye nag du feebar feebar boo xam ne bi nit ñi lañ ko jaay dawee moo tax daal li nga xam ne moom la ñu gis daal ci ay alxuraan yi moo di ne yonent yàlla Ayyuba mhm. amoon na tawar boo xam ne bi ni jotoon na ko mhm. ñaanoon na borom bi tabaaraka wa taala ko mu saafara ko mhm. ñaaneewoon na ko itam ci teg ñin ba tawar boobu la sax ma dem ko wéet wéet ci yàlla mu ngi ko wéetoon sax ci seytaane borom bi tabaaraka wa taala nanguloon na ko noonu na ko dóoroon sa tànk ci suuf mu dooree tànkam ci suuf mhm. ndox mu bëree bëree bëree wal mhm. ndox moom la ñu ne ko sangu mhm. naan ji ba mu ci naan ba nga defee borom bi tabaaraka wa taala saafara ko loolu nag doo tax ne moom mooy yonente boo xam ne dina njëkk nañ koy defal yonente yàlla Ismaayla moom itam borom bi defaloon na ko ndaxte yaayam jamono bu mu ko jëwee da ko jëwee ci àll boo xam ne mu baa dem xayru si sareen enda baytikal muharram àll la woon boo xam ne bii ndox nekkul ko woon bu nag te ndox amul bàyyam itam nekku ma mhm. yaayam nag teg ko ba ca xurwa da mhm. daaw nag ci diggante ñaari montagne yi mhm. muy Safa ak Marwa bu yee mu dawee ci Safa da seen kobu bàyyam Ibrahim bàyyi xale bi muy Ibrahim bu yee mu dawee ci Marwa da ko da ko séentu diggante boobu la ba nga xam ne ne bi daw na ba tool te gisul bi jigéen joo xam ne jigéen dafa am doom ci hmm. Hmm. ni nga mooy jaaxle hmm. jaaxle googu rek moo ngi yenoon nag muy ba xam dana ba xam dana ba ci kanam nag mu ñëw seet bi nga xam ne fii nii ko tegoon ne xale day weqi tànk yi noonu weq na fi ba ndoxu son sam ball mooy ndox moom la nga xam ne moom la barkeloo nii ba tey. Mhm. ba nga demee nag ndox ma ball. Mhm. bi mu ñëwee bi mu dese bi na fekk xale bi na am ndox. Mhm. ndox moom la mu nandal ko xale wa. sang ko ja. jëriñoo ja. de eh, ko delloo na naan sa sam sam maanaam mooy delloo. teen boobu la nag gisu tey bi mooy nekk nag di yoon noonu la mhm. teen boobu la ak yonente moom lañ santoon ne moom moom lañ ko fa ballaloon mhm. naka noonu yonent yàlla ay yoba mhm. moom itam borom bi tabaraka wa taala ballaloon na ko am ndox ndox moom la mu ne ko sangu ji naan ji kon ci naan ba nga ko defee mu daal ñun mooy li nga xam ci xisa am na nag yeneen yoo xam ne yeneen wax nañ ko ci loola ku ko bëgg ko laaj ñeneen hmm. waaye ñun li moo ci suñ dayo xam-xam hmm. waxaat naa may nañu may nañu loxo hmm. ñaar ko loxo ñu ñoom wa mis loxo ak kem ñu ñoom maa moom ñoo xam ne ñu ànd na ñu ñoom yàlla moom ko defee borom bi tabaraka wa taala may na ko jabootam mais ak ku leen jaboot boo xam ne ñoo amoon bu njëkk raxmat na yéen man dañu naa ko tukkee ci ñun mhm. wasikra ak waare leen mhm. wali la baabi ñeexal borom xel yi mhm. waxoon na nga door ko door ko ndoor waxoon na nga jàpp yenn gi ci sa loxo def ko sax sax ba da dem nga door soxna si bii ñu ma waraata laal bal bal peñ yaa waxoon ne dañ ko dóor bal peñ nag dóor ko daa yàlla na ñaari ñaari yëf yoo xam ne yii nii benn bi mooy fasaara fa kaana min mudhamiina mooy yonent yàlla Yuunus fekkee na fu ñuy tegoo bant ba tegoo bant booba natt ba nga xam ne bii nii moo ko ca fegoon fekk na ko ca ak ñoom sariya mu bokkoon dañ daan tegoo bant léegi nag ñun suñ sariya bi tegoo bant fan lañ ko teg te ba ba te ñu def ci ñaar yëf yoo xam ne yi ci ci benn mbir moo xam ne mooy yem ndax léegi mbool la moo xam ne nii nii dañuy bokk ci juróomi ni dañ bokk juróomi saako ceeb suba mën nañoo tegoo bant ku ci sa bant dal saako bale nga jël boobu waaye day fekk muy leen waaye juróomi nit ñaari saakoy dugub ak ñaar ak ñetti saakoy ceeb nanguwul tegoo ban saako dugub saako ceeb complet yére nanguwul tegoo ban lépp yére la nangoon a tegoo ban lépp ceeb la nangoon a tegoo ban lépp dugub la nangoon a tegoo ban waaye bu wuute amee rek ci suñ tene a ñun nanguwul nanguwul tegoo ban bu dee bi itam ci sori am nañ ko mayoon mu jël benn sakk boo xam ne bii ne war naay mat ci ñëri yar mu caw ko woon doon si te waaye mu ñu ñun bu dee ci suñ courant islam bi boo duñee ne danaa def téeméer danaa boo bu ci téeméer yu mas rek la moo waaye mën doon mën doon mën mu nekk téeméer yoo xam ne dañ ko naxante mën a téeméer la maanaam mënoo wax dajale soo ko su ko mënoon tey nga nopp ci wér ni ko noonu boo bëggee wér da ngaa wax ne laa ilaha illallah téeméer yoon salaatu ala nabi téeméer yoon mu pare bu ko kenn jotaay bi rek ñaar wax loolu mu pare doo ci doo toog ba yàgg wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah bu muy téeméer yoon wala nga nekk foofu day wax eh, astaxfirullah astaxfirullah bu muy téeméer yoon suñ ko yaa moom xamul loolu moom léegi ñoom dañoo amoon ay sariya yoo xam ne eh, bokkul ak suñu sariya ñaar yooyu benn bu ne feeñ na ci feeñ na ci fa fasaa fa kaanu ñun mën nañu wat lante waaye nañuy wat lante da fekk mbooloo ko bokk da fekk muy benn xeet waaw inaa ñun wajadnaa fekk nañ ay yow wasaana mu daal muñ neema baana bu jàmba moom ay yooba inoo naka moom ay yooba aw awaabun benn waxaakoon la te yàlla waaye kon na nga tudd xebaal naa suñuy jaam kenn ka Ibrahima lañ koy wax kenn ka doomam la ñu koy wax Isaaxa kenn ka sëtam la ko wax Yaquba Ibrahima mooy bàyyi moom moo jur Isaaxa Isaaxa moo jur Yaquba Yaquba moo jur Yuusufa mu ne ay dañuy ñooy borom ak kattan borom ak man-man ñun ñoo ñun ko jox wala ab saa ay ñooy borom ak gis ñun ñoo leen wan. dinaa ñun axlas naa sellal nañu leen bi xaalisati bi xaalisati sikra bi xaalisati sikra daari am na kaa yoo xam ne loolu la ñuy jàng ci sell nag fàttaliku kër xaalisati laas ko di sikra sikra nga laas ko di daari ba xaalidati sikra daari ci seen nag fat ndagu alaxir am na kaa yoo xam ne ngay jànge inna ñun axlaf naam sellal nañu leen ba xaalidati ci aji sellal yoo xam mooy sikra daari mooy fat ndagu alaxir waaye noonu naka ñoom ñu naa ci mustafayna bokk na ci ñu ñu sellal ña ñu tànn ña alaxyaar ñuy tànneef Mustafa yi nag boo dee bu ko ne jàkk rek ñee demee ndax tasmiye la ndax tasmiye li ci xamoon mooy dangay sukkoon yaa jiital pataa nee na Mustafa yi waaye du tasmiye de jama Mustafa Salim la jam xooxoo masa kari saayam la laminal mustafaa na mbokk na ci ñu tànn ndax baatu bi day maq suur mustafaa ba mu mel ni mustafaa bëggee mustafaa yu bëri mustafaa na ngay def mustafaa na bokk nañ ca mboolam ma de muy tànn al al ayaar yee tànneen jii la jamoo koy moo la xamal ne mustafaa na jamoo la xeetu tànk bu baax ba wootuloo nga teg ko tasliya te it bu boobaa léegi day yomb ci yow lool ndax da nga naan tasliya yaa lay fadaa fadaa mooy jiitu yaa topp ci sukkoon ko waaye du tasliya de jamoo musakkari saalim la al axyaar rek mooy naat moom وكنا ندعو قبل إسماعيل وليدها وصل كفلي وكلهم كيف ñoom من الأحياء bokk nañ ci ay tànneef هذا ذكر الوالدة وين المتهيئ وين الذي يلفظ ما هذا نفسك يلوائي ñun ñëpp la doon waxal ne bu bu bu yëkkate yi paase kenn ku nekk doon na rafet kenn waaye léegi nag mooy mooy nag mu doxee ne yëpp. janaat naat min ajanaay sax mu fattaxaatan jëri ñu ubbi loo ñeel ak abwaab buntu yëpp. ci ñaanal Suleymaan gi dañuy wax ne yàlla may ko nguur goo xam ne kenn mosu koy xam waaye itam nag yàlla may ko nguur goo xam ne kenn dootu ko amati loolu sax dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñaan gi. mbokk may déglu kase de maa ngi lay ñaanal yàlla jëriñ ñu ci yenn yàlla jëriñ la ci waaye toujours del xam ne mbindeef ngay déglu mbindeef dara matut dañuy juum dañuy yàq kaasaalee si dama waate la mooy na ngeen ma doxee na ma ne ñu ànd mooy ragal yàlla yi la woon na maaba na ko teg wàññeeku wàññeeku janaat na àdduna janaay sax mu fa taxaataan dee ci ñu hubbi loom ñu àll ak ab waa bu fiya mu takkee ni ne way su ko ndegu saa àjjana te taxoon nañ ngay woote ñu leen di indil yaa ji mun dafaa ci àddi ci fooy téef kasiira ñu di way bëri asula bi ak naan boo xam ne bu day bu taw xel la waaye na may moom xaasalaat ko si yéen ñoo xam ne way gàttal ci seeni bët lañ seen jëkkër képp la xool ak saabu ñoom ay maas lañ amuñu naan ci mu yaaw ba ci mu ñaaw ba ci mu ñett ba ci mu ñeent bi ñoom ñëpp benn maas lañ xaasaare moom mooy la nga xam ne aa a a a maa la woo ñu yàlla ko mën na faa di jeex loolu la ñu ne yow bu nekkee ci àjjana bu ne wanee nganale boobu man la ñu mel waaye xanaa saa mbir maa ngi nii mu ne ñu taasal ñu yàlla way deew gi nag te sooda maa dem xiis xiis delluwaay ñu ne ñoom xusba ma aadul la yam ñu moom sooda ma aadul jahannama la yaslaw na xaar danañu ko jaaru te bii sa bon na ak ñu xaarul lal ba te mooy jahannama haasaa mi maa nga ne mooy jahannam fan yasluquuhu nañ ko mos haasaa mooy lii xam ni mu ndox mu tàng la wa qasaaqun ak lu mel ne dëkk kaa ngi naatoon ñu mu ko jaani ñoom baat bi duñ koy sàdd mukk am na yeneen kaa yoo xam ne baat bi duñ ko ñàkk a sàdd mukk baat bi duñ ko sàdd duñ ko sàdd wu yëpp ñu benn la qasaaq mooy ndox moo xam ne ñëpp lay mel di sotteeku ci mu bàyyi ko xel naag moom ak ñun bokk ak jaañu ko defaat ba mukk kasaay yu ak xamsa ak xafsa jëlee ko ci aatin ak xalbu ñoom ñëpp dañ koy sàddal su ko du sàdd duñ ko sàdd li koy sàdd nañ koy sàdd loo ko mën boo la jëlee parce que moom mën na moo xam ne comme dëkk laay doon liggéey la waa xara ak leneen mooy ndox mu tàng moom ak dëkk jooju le aswaaj yi muy ay xeet ñu fekk ci melokaanu dëkk jee ndox mu tàng moomu ñoom jaanama nag jàngoon nañ ko ci sootu Araaf kullu maa taxal ummatun lahanat kuffaar ñaan bu ñu séenee bu ñëwee ba fees ñu mujj dikk dañoo xatal ñu njëkk a dikk ba ñu njëkk a dikk dañoo ñu mujj dikk mu laa wax fii ñu njëkk a nekk ñu njëkk a dugg safara ñoo seen ñeneen di dikk bëggee wuñ leen ñu ne ah saa ñëwee foo jëm kuréel lañ wax ne moom bu daal ji bët maa ko ànd ak yéen ñoom itam fii lañ bëgg a fekk te gën a xatal place place ñu ne laa ngoraaman yaat min de yéen ñoom bu leen yaatal de te ñoom nag ñoom saalu naare way tàbbi safara lañ xaala ngay tontu ñoom ñooy nga xam ne dañ bu leen yaatal safara lañ jëm dañ ko doole xatal ñoom itam ngay tontu dañoo xuloo de balle mi nekk ànd ak yéen laa ma xaman benn yaatal dugub ci antum yéen qaddamtumuuhu yéen a ko préparé na ñaañu fii kër kër ñu jëm ñu ko waajal li tax ñu def dugg tey nii yéen ñu ne ko yéen ñu ko def loolu antum yéen qaddamtumuuhu jiital ngeen ko la naa ñaañu sa biir sa bon alxaraaru taxawaay la ñooñu dañ ñu ne lay ñu ne lu ñun lu ñun kon yàlla yow yow yaa xam kan moo sabab ñun ñii ñu bokk dajee fi kooka la nga xam ne yow xam nga ne muñ ko dajale yan ne ko bugal bugal moo xam ne mooroom ñu ñu bugal xaaral ñu ne rabbana yow suñu borom man qaddama ko jiital nañu la naa ñëwee ne haasa lii te si suuf nañ ko doole asaabam bugal neexoon muy ñu fulandi ñu naar ci safara rabbana yi nekk ci alxuraan ñun dañ jàngatee ne ñaate dañu tànn tànn tànn ba nit ñi la waaye doon rabbana yi ci alxuraan rek ñu boole ko ci xam benn waaye boo xam ne ñun dafa am ci waxtaange lool mu topp rabbana yi nekk ci alxuraan yëpp dajale ko mu nekk ay ñaan su ko defee daf ñuy boole nag yoo xam ne ëpp na ñaan yi ëpp na ñaan rabbana yow suñu borom ma xaddama ko jiital naa ñaan yi haasa ali ci ñaan yi safar la nekk xanaa yow foo bëgg loo fay nekk ah? ba si doon ko doone asaabul bugal ñi akoon da duñu bugale ñu ñaar ne fii ci àdduna leen xeeboon jàppoon nañ ne ku ku dem safara ñu lu ku naa nekkoon de wëñu leen ñu ne assurance lu mu ci wëy am na ñoo xam ne ñun dañuy jàpp ne ñu ngi leen lay ku tukki ci ñoom nga fi njëkk a fekk mu ñoom anam yi ñun ñoo juum de asaxaafaa ndax ñun ñoo leen jàppoon soxore yi yéen ñu reetaan ñu ñëwee doon reetaan ne du leen dara nekk doo dara lañ moon am saa xaw wala di jeng ana ñu al aswaay ñu fi wala boo tuub la ñette ba ko seen seen tuwaay ñu ngi fi aw xaar mu ne xëy na naka noonu laa ko ci dëgg dëgg dëgg saxaaru mu ànd naa rek mooy xuloo ñu sawara kaa ngi am ñu jàng soxla yi yan ñu reetaan am ñu jàng soxla yi yan boo jàngee soxla yi yan ak boo jàngee soxla yi yan yëpp kilimu benn la. kon nag yenn maanaam naka man mu ngi aji waara laa. moo am ci lay amul borom ci la daaw borom bi alwaayee lu koy kenn alxaaru koy du dàkk woon moom na rabbu samawaati mooy borom asamaan wala ardi ak suuf maa bay na maa nekk diggante asamaan ak suuf arrangé bi mooy borom bi aji tedd alxafaar mooy borom bi jéggale ak woon kon la ne xaw moom mbiram alaakara ne boo xabaala bi muy màgg màgg boo xam ne ànd ak yéen mooy doon wooy bu muy ngeen ànd ci moom kon nag nee na xaw moom alxuraan ne boo xabaala bi mu bu boo xam ne ànd ak yéen mooy doon wooy bu muy ngeen ànd islam bi la de ne boo xabaala bi mu bu aji màgg ànd ak yéen mooy maakaana nekk nañu yàlla ne benn xam-xam bi nu ma lay malaul ala ñoom malaaka yu kowee jax si noonu ba ñu xulóoyee malaul ala ñun malaaka yàlla yi ñoom seen xulóo du lu mooy de de weerante ban jaamu yàlla moo gën a ëpp ci yaabu ban jaamu yàlla yaa woy wuti léegi man yaa woy wuti léegi man illaa ndare annamaa naka annamaa naka man na si ay waale la haddini mu aji biir bala alaa la ñuy waxtaane ñoom ñoo ko xam man wax yu ne xamal ma ne ma yow nii aji waare la koo xam ne kii nii lu leer ngay wax nañ la déglu loolu mu jàngale lañ gàtt gàtt dañ cee am xam-xam ba ca xam moo xam ne xamoo ko xamoo xamoo loo ko ko woon ku la jiitu woon te saala ma waxee yàpp nga sa borom li malaaka di ñaan malaaka yi te nii man xaalixul aji bindi laa te suuf maa la ñoo xam ne day tekki ne dafaguñ ko waaye nee na defi ëllëg la ah la ko laaj ba faral di leen maa ngi koy bindee min ci min ci benn tey saa saa waaye bu ma koy mu bind ma pare. wala faxtu ma wala jiw su waaye nit waxoo nañu ne saa yu dee lu wéy si delloo ñu yeel ko. borom bi nee na waxoon malaaka sànni ngeen moo xamante ne ci bënn laa koy bindee saa yoo xam ne ne la ma caa def sotti na ba sotti su boobaa da ngeen ko sujjootoon ba loola sottee borom nga xamal sa xeetu xam-xam loo xam ne ni malaaka ya xamuñu mun laaj malaaka yi loola ñoom ñu mel ne xamuñ ko woon mu wax aadama ne xamal leen ko ba mu leen mu def leen ne si jotal si jotal leen ko mais leen waxoon na ko ci sóotu Baqara waaye bi mu ñëwee ni moom da koo gàttal te sa jotaay si jotal malaayka malaayka yi kullu ñun ñëpp ak ñu woon a boole seen malaayikatu bu ko waxoon mu doy fukk fukk ci yóbbaale malaaka yi yëpp bu ko tegee kulluhum xedd ko mu dellu yóbbaale malaaka yi yëpp rawat na ba mu ko tegee aj ma woona ñoom ñoo tijjoo tijjoon nañu te laaye li nga xanaa iblis iblis moom la nga xam ne kaay na jinne waaye yàlla naa joxam ne mën na ni ci ñoom la bokk xanaa iblis moomu de moom mooy ki nga xam ne te sag ba rëylu na wakaana mu mujj nekk ñooteex yow lu yàlla yi xanaa iblis moomu nga xam ne kaana mu waaye yàgg na ci biir malaaka yi dañ na ko yi ci joon nañ malaaka yi yóbbu na malaaka yëpp kullu yóbbu ak ñoo yóbbu na xanaa gis ngeen li nga xam ne kaanu mën a junni moom lañ ko jànge woon ci yeneen saar kooku moom effet ba la dafa rëylu masaanam mujj nekk ñu leen koy gën a mbokk ñu ñuy weddi yàlla yi ndax dañ koo tam defu te ku yàlla ku toll ni yàlla comme ko defuloo weddi nga kon léegi kaanu mën a junni wala ma ko jëlee yaasidona maaye def maakene te luum yéen ñëpp ñëpp ay moonal boole seen menn malaaka defu kenn defu ci malaaka yi ilaa nit ñu bëri iblis la bokkoon ñàkk maqaamaam di ko yàlla si loolu si jootul kooku fekk mooy dafa reylu yàlla sujjóot noonu malaaka yëpp bokk ni ya nangu woon sujjóot ndax reylu ñu ne ko lu tax dooma si ñëwatan mu ne maa si gën ndax lu mu la bindee moo gën lu mu ko bindee boo saanee mu ñu nekk moom ñu gis ma wala li nga def ne bokk ci wéy weddi yàlla yi ci gannaaw boo xam ne ne bokkoon na ci mbooloom malaaka yi xaala maa mi ne yaa ngi dégg maa man naa dalu la tere ante si li maa ci loo xam ne xalaatu maa ko bind man yàlla di ngeen day yëkki sama ñaari loxo dama dama màggalee noonu rek waaye di ngeen day naa ci loxo waaye mu ne bind bu mu ko fonk yàlla damay bi ne moo ko xam waaye bu dee am ay loxo yi loxo yi mel ne suñu loxo yi aswaj man ndax yow dangaa rëyloo sujootal ki nga xam ne maa ko bind ankunta wala ndax yow dangaa nekk mel aliin di wéy rëy ba mu tontoo lañ xam ne minal ci la bokk te rëylu yi dem boo ko teg loolu minal aliin di bokk ci wéy rëy wéy rëy seen bés su ma tee sujoot xaaral mu ne ana man xayru mbaal aji gën mënu moom ñu ne ndax xëy na yéen lan ñoo gën tey te yàlla lañ koy waxee. وربنا يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير من جعل سورة القصص yàlla mooy bind mooy tànn mbindeef mel dañu la tànn moom moom la ñu tànn bi boppam lii sama lay mooy xalaat am nañu daal ñeneen ci man xalaat ne génn nga min naa ci sabara ma xalaatoo woon génn ko mun seen ci bënn waaw yàlla ne ko moom ne génn min naa ci pay bi day naka naka yow rek jéemoon suñu jam nga day naa lay ko war na la am na ci yow sumam rëbb ilaa yow mi dina ba ci bisu fay ba waaw yàlla ne ko rabbi xaala mu wax moom seytaane ne rabbi yow suma borom kon sumni baan su ne yal na muñ ñël ilaa yow mi yëf ma suma dugg bi nga xam ne def nañ ci dekkal yal na mu ko bàyyi muy dund ba ci bisu dekkal ba mm-hmm. xaala yàlla ne ko mm-hmm. dañ la muñal de waaye doo àgg ci bisu dekkal ba tey naka naka yow mm-hmm. ñu ne mun so leen yaa ngi bokk ci ñu muñal ñi ilaa yeneen waxte ba jëgg sa waxtu ba alma leneen ba defuñu xam te moo ne fa ñuy waree bokk bu njëkk ba boobu dañ la dañ la bàyyi ngay dund ba jamono jooja waaye bis boobu nag doo ko romb boobu ngay dee yow sax comme ni ñëpp di dee xalaala seytaane wax ne abien sa dëgg giñ naa ci sa mbaag gi yow yàlla mhm. laa waxul yan na moom dinaa leen beewal ak ñee na mboole seen laaye mhm. baa defandala sa jaam yi ñoom mhm. ci ñoom ak moom suñu ñi dañ ñuy sellal mooy sellal jaam yooyu dañ ñoo ñoo xam ne ñu ne ñoom dama leen ci mën a boole da toxla daal bunt bi nga xam ne ci li ñuy dawee pour mucc ci seytaane mooy sellal ak iman boo xam ne bin bu dëgër la ak ragal yàlla ñu ci yooyu de koo xam ne kii ni moom nga toppoo seytaane du mën ci yow dara boo xam ne ci nag toppoo loolu yaa yooyu de mhm. yaa nga mel ni ku nekk ci ndende mhm. ku yaa yooyu te ne dafa mbëgg bëgg mhm. yaa nga mel ni ku nekk ci ndende asamaan si kaw nga ne doo da ngay mucc ci taw bi xaala borom bi tabaraka wa taala ne mm. Mm. wal xaqa dëgg mm. wal xaqa tey dëgg aqulullaa de wax laaw laa ne dinaa fekk jahannama jahannam ñeen ko ci yow iblis buyu man ak ñi ñi nga xam ne tabianka topp nañ la minum ci nit ñi añ na yeenam boolu seen xaa qul ne leen maa asalukum maa asalukum du ma leen laaj. Mhm. yow yonent bi waxal bi leen ni leen. Mhm. maa asalukum du ma leen laaj. Mhm. maa lay boo xam ne bii ñu dama leen ko ciy fayee ko. damay jaax ne rek ngeen déglu. ngeen fi bàyyi ko ngeen jëfandikoo. waaye laaj ma leen benn fay. maa ana deen man mi nag mutakallifin ma bokk ci way toogoo yi. di fenta alxuraan te fekk dégg bàyyi ko ñu ci yàlla. yéen a waa dale alxuraan. dinaa sëgru na la waare. dinaa leen ne ñaar bindee bi yëpp. waare la boo xam ne bii dañ leen koy jàngal yéen. Mhm. bu te bindeef bi dafa jàngale seen bindeef yéen. Mhm. mooy li seen bindeef. Mhm. wala temps la mun na da ngeen xam yéen yéefar yi. na ba xibaaru alxuraan bi. da ngeen xam xibaar yi muy wax ni fan la nit yi. ba la xëy nañ ci ginnaaw jamono. te mooy bi yow xiyaam jotee. boo xamee ne bàyyi ko nañ fii ci àddina. laa gi yow xiyaam. da ngeen xam ne alxuraan bi koore bu ci nekk rek. dafa am lu mu doon wund. te loolu dëkk bi naa mukk. boo ko jotee rek dina am. ñu ngi bëgg a dugg suuratu Zumar بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب wàcce téere bii mm-hmm. muy alxuraan mi mm-hmm. téere boobu la min allah mu ngi tukkee ci yàlla mm-hmm. nee na alxuraan mi wàcce gi nga xam ne kii ni moom lañ ko wàccee wàccee googu la mu ngi bàyyee ko ci borom bi tabaraka wa taala gis nga ne ñu mi bàyyee ko woon ci njàngum alxuraan am naa asalukum alayhi min ajrin da doon wax bi ngi jàng di ci jëlee di ci laajte benn pay nee na itam wa maa ana minal mutakallifiin toog boobu di leen féetal alxuraan li ci mën la bàyyi ko fekk bàyyi ko ci yàlla ci ci mën la bàyyi ko te fekk mu bàyyi ko ci yàlla wala mu bàyyi ko ci yàlla wala mu bàyyi ko mën leen féetal dara di naan leen ci yàlla bàyyi ko fekk bàyyi ko ja nee na alxuraan man awma ci lu may toggoo in huwa illaa zikrun lil aalamiin mu ne nag tanziilul kitaabi min allaahil aziizil hakiim taseloon ko taay wàccee téere bi mu ne laa yetubee na ci yàlla avancé si buur bi nga xamee ne aji noonu la ci nguuram alxakim buur bi nga xamee ne bi aji ñëw la ci jëfam naa naka ñun yàlla ansal naa wàcce nañ téere bi illee ko jëm ci yow ansal naa wàcce nañ illee ko jëm ci yow alkitaaba téere bi wàccee nañ ko bay xaq ci dëgg maa bur na nga jaamu allah yàlla moom la fan mu nga da aji sell loolu ñaaw ko addina diina nga bañ ci bokkaale alaa yég leen ne ilaa ñeen la yàlla ak diine diine ak xaalis bi daal di teel la mm-hmm. diine joo xam ne diine ji teel mm-hmm. xam ne dina ko nangu mm-hmm. dina ko jéggalu waaye bépp diine joo xam ne diine surtout mu ngi ci nekk diine jooju da nga xam ne kii nii moom la ko bokkal ati yéen tey nee na borom bi nee na ana ax na surkaa yéen su ana na man daal képp koo xam ne kii nii man ñu ngi may boolee moom dara rek koo xam ne man maa ko a doylu ñu may lii ak diw ko bokkal rek. Mm-hmm. loolu man génn naa ci sama sama sama loxo wàccee ko kookale. kon nag diirul xaalis daal mooy loo xam ne lii moom mooy aju ci yàlla. Mhm. lu ko mooy rek du aju ci yàlla. Mhm. bu ko di yaa xamee. Mhm. du aju. bu fekkente ne dégg te lu muy jël du aju. bu ci suuf nekk itam du aju. diirul xaalis rek mooy loo xam ne lii dana aju ci yàlla. wala Sénégal yi nga xam ne itam ba jàpp ñu doon wala ñu jàpp leen ñu woy méngoo. maa leen. lii xëy na ñu ne lu tax ngeen leen jaam. ñu ne maanaam bu doon jaamuñ leen. la yoo xam ne boo naan dina laa jëm ci yàlla suuf ba ak jege mm-hmm. dina laa nag yàlla yàq ko ma doon àtte ba ñoom seen diggante mm-hmm. ak seen diggante jullit yi mm-hmm. bi maa ci la nga xam ne moom ñoom yàqtale boo na ñu ngay wuute fii ci moom ñi nga xam ne dañoo jàppe ak xerem leen waxee ne leen bàyyi leen xerem yooyu la ñi nga xerem yi nag duñ ko bàyyi ndaxte mooy yoon nga xam ne ci la ñu jaaree jëm ci yàlla ñii wax loolu de nee na bu yemoo xeyala borom bi tabaraka wa taala doon àtte seen diggante ak seen diggante jullit yi nga xam ne imaan bu rëy dañu yorowaat imaan boo xam ne bi mm-hmm. nekkoon seen diggante nee na yàlla ma koy àtte mm-hmm. ina laa naka yàlla laa yande du jubal man koo xam ne huwa moom xaasibun aji fen la mm-hmm. kii buy ak ne yàlla doom kafaaran mm-hmm. koo xam ne kii nii widdi haa koom la mm-hmm. lawaada bu na mu allah yàlla an it man mu jàpp wallum doom fekkoon in yàlla dafa bëggoon am doom man la safaa mu tànn bi ma ci la nga xam ne yaxma xam mun koy bind maa sha lu ko soob koo xam dafay tànn lu ko soob loo xam ne lii lu rafet lay doon du neex a du neex a askanoon waaye li nga xam ne yéen bëgg leen koy askanoo muy doomu jigéen kon borom kaana xanaa daanu loolu mhm. yaa doon doomu jigéen dafa bon mhm. waaye nag yéen da ngeen ko bonal ba pare ne mhm. koy ak yàlla subhaana wa tudd na ma sell yàlla mhm. huwa moom yàlla mhm. allahu mooy yàlla mhm. alwaxidu mooy kenn alqahaar mooy nu taakoonu bindéefi xalaqa bind na asamawaati asamaani wala ardu ak suuf bind nee na ko bay xaq ci dëgg nee na moom yàlla moomule di koblu mooy taxañ allee la guddi moo koy taxañ nag naxaar ci bëccëg borom bi tabaraka wa taala nee na mu ne mu ne borom bi tabaraka wa taala mooy jël guddi taxañ ko ci bëccëg su ko defee jamono jooju dootu doo gisi ci bëccëg li ngay tawa guddi moo taxañ taxañ ci kawam mhm. li ko wër dana taxañ mhm. alnahaara guddi mhm. alal layli ci alnahaara bëccëg moo koy taxañ alal layli ci guddi dana dana am jamono borom bi tabaraka wa taala mooy jël bëccëg taxañ ko ci kaw guddi dootuloo gisati guddi ndege too bëccëg moo taxañ ci kawam moom borom bi mhm. asaala tàggat na asams jant mhm. wal xamara ak weer mhm. tàggat na leen xulun képp ci ñoom ñaar ñu ñu lay yej jëre yi mu ñuy daw ci pëlugam laa jëleen jëm ci biir musulman boo xam ne dine lu ñu tudd la alaa waawe yi alaa yëg leen ne boo moom yàlla alancé bi mooy buur bi nga xam ne aji noon la aw yàlla mm-hmm. ala xalqum bind na leen min nafsin ci bakkan waaxidatin bi benn mm-hmm. mu ngi leen bindee ci benn bakkan mm-hmm. bakkan boobale mooy aadama aadama yéen ñëpp ñu leen boole mooy seen maam su ma jaxaa toog mu def mi naa ci soxna ci bakkan boobale saw jaxaa wetu lëmboo ba mooy xawaa ñi nga xam ne mu ngi ko bindee woon ci benn bakkan boobale muy muy muy muy aadama mm-hmm. dem ci diggante boobu nag ci ngeen ci ngeen tasaaroo mm-hmm. ba bëree ngeen bëree ni léegi mm-hmm. waa sala wàccee na lu ko ñu waa sala def na lu ko ñaale nee na lan am ci jur gi sama niyet ak waajam juróom ñett seet nee na borom bi tabaaraka wa ci jur gi juróom juróom juróom loolu ma juróom ñett seet moom yàlla yaa loxo ko mu ngi leen ay bind Euh, te jëm ñetti xeet yooyu mooy la mu doon wax. Mhm. semence yëpp ak waa ji ñu ñu doon daal di ne ni mu mën a mën a sus nañ ni. Mhm. comme ni ñu ko doon jàngee foofu ci foofu am. yàlla waxoon yàlla moo ne nay bind bi bu doon ummahaatikum ci seen biir mm-hmm. ndey xalqan ak bind min bayni xalqan di njëkk a doon ginnaaw bu toqante wéyee mu ne bii soow fàll na parce que sama xisaama la man su ma am sax naaw xalqan aaxara xalqan ak bind min bayni xalqan ci ginnaaw bind mm-hmm. te bu la mm-hmm. ñett ñett lëndëm yoo xam ne yéen bokk benn bokk ci sa morom. Mm. ndax doom bi ñu ngi ci biir ndeyam. Mm. te biir rek dafa doyee lu ndaw. Mm. beneen euh, biir boobu de. doom ji itam dafa am place boo xam ne lu xam nañ ko wax. ruum boobu la moom itam muy bi muy lëndam ak boppam. ruum boobu la bu ñu nee ba ne fii lu doom bi tëddee itam. doom bi buy tëddee foofu itam. dafa am benn muuraay. boo xam ne bii moom la ko borom bi tabaaraka wa taala de muuree. door ko tuddal nag foofu la ci ruum ba. muuraay boobu la moom itam. lëndam ak boppam la. kon nag doom bu nekkee ci ndeyam mhm. am na luñ luñ muuree jëmmi doom ji mhm. doom ji biñ ko muuree ba pare ñu mhm. ngi ko teg ci boo xam ne bii nii roxum lañ ko wax roxum boobu de mu ngi place bi ci biir ci biir kollam ndaw bi su ko defee koll bi lëndëm la roxum bi lëndëm la machine machine mag bi nga xam ne la nekk ci biiram moom itam di lëndëmam boppam yaa yëpp nag borom bi tabaraka wa taala ak li mu lëndëm lëndëm lëndëm teewul wa ya'lamu maa fi l-arhaam teewul fa mu la nekk ci biir noonu rek xam na fan lay jaar bu dund ak la cay xëy ëllëg ak lu tuuti la wala lu bëri la ak yéen li ci maag bi ak li cay waaleykum seen seen kooku rek kii def jëf jooju le mhm. allahu mooy yàlla mhm. rabbukum mooy seen borom mhm. loolu ñaan na ko almulku nguur laa ilaha illa huwa waa nekk suufoo naka naka lañ leen wàññee ba ngeen dem keneen in takafara ba ngeen ngeen weddee itam na keneen ku dul yéen wala waaye nag ñu ngi leen a yëgal ne wala yar laa yàlla du gërëm da nga baa de ngeen yàlla itam borom bi ko neexu ko neex bu leen ci fayee buñ a fay yoo xam ne yàlla nangam araare bu ñu ko wax waxee mhm. moo di ne bu ko yàlla seytaane doon du am mhm. araada bu ñu ko waxee moo di ne bu ko yàlla seytaane doon du am mhm. loolu du indi tiyaabo bu ko yàlla seytaane doon du am rek tax ñu ne ku dem da am tiyaabo waaye bu ñu waxee ne wadiya moo di yàlla kontaan na ci dana fay bu ñu waxee ne jëf yi jëf yi ridwaanam laay mu ñu jëyee ji bëri tiyaabo lay doon kufru nag yàlla moom la la yàlla daa du ko gërëm moom bu tee rek ñu ne nag moo ci coobareem laa ne mhm. ndax bu fekkoon ne foste na leen ci gëm itam mhm. waaye itam ñu gëm mhm. waaye nag naka foste doomu aadama ci gëm ak ñàkk a ñàkk a gëm li ko li mu bëgg daal mooy alam nañu àlla waay nay ni wala saan moom sama tey ni dama bëgg daal wala ekkiti ñaari xàll yi kon ku ci tànn xàll ñu ñaan la ku ci tànn xàll njubali nga jubali léegi mu bëggal ñaan wala moom la wax ne loolu des tubaab bu ngeen santee nag. Mhm. su fekkente ne bi ne da ngeen sant yàlla. Mhm. ko jaam ko. Mhm. yàlla yàlla dana gërëm sant boobu da ngeen sant la ko ñaar ko fekkee ne ko wéddi nag. wala yàlla baal nañu baal nañu ko nag moom neexu ko. waaye eh, du ci fay du ci du ci gërëm ne lu ci fayee ne waaye nag nga sant ko mhm. sant mooy ci lu ne nga jëfandikoo ko ci la nga xam ne moom la borom bi tabaraka mhm. mhm. lu baax bu lu baax la ñuy tuddee sukkur lu ne la taxoon borom bi loola la wala tasiru du yenu mhm. waa siratun bakkan boo xam ne dina aji bàkkaar la dina mhm. yenu wis la uxra bak eh, wis la uxra mhm. yenn beneen bakkan mhm. eh, nee na bakkan boo xam ne bii dafa bàkkaar dend ak beneen boo xam ne bii ne mu nga yore bàkkaar mhm. kenn ci ñoom ñaar ne ñu day mhm. su ci yéene yéen a morom ma su ma su ma ilaa rabbikum topp su ma topp jëm na ci seen borom mar jëma comme seen delluwaay ñu ngi lay yëgal ni yéen ñëpp yéen a ngi delloo ci borom bi tabaraka wa taala yi na bu comme dana leen xamal waa ji la nga xam ne su bu nekkoon ngeen tàmbaloon daan ko def laa naka moom yàlla man de moom aja xam na bi saati si dóor yi ci li nga xam ne moo nekk ci biir xol yi borom bi tabaraka wa taala xam na ko mhm. bokk na ci yow dina xamal ci doomu aadama ne. Mm-hmm. waaye saa ma su bu jotee alinsaana ne. buruun lor. daa mu ñaan rab boobu boromam. waaye mm-hmm. ah, mu nii ban di dellu illee jëm ci boromam tabaaraka wa taala. mais mm-hmm. doomu aadama bokk doomu aadama. bokk na ci melokaana yi ne. soo xamee ne am na lor boo xam ne gii ne jot na ko. nga mu dellu bu baax. jëmale ci borom bi tabaaraka wa taala. su ma isaa xawaloo topp leen may na ko neexmatan xiwal su fekkente ne borom bi tabaraka wa taala may na ko xiwal mhm. xawala boo déggee wax ko rek mhm. mooy mbir moo xam ne ni nii mhm. benn dañ la ko may may koo xam ne génne gu ma sëkk wala dañ la koy jébbal bu dee yëfi jàmbur itam te nga ne la neexee nga ko kenn du lu kenn du lu laaj koo xam kenn ba tax na palte goo xam ne kii dañ ko palnit sax palte mhm. goo xam ne yooyu yëpp léegi xawal lañ ko tuddee ah moo tax itam tuddee yooyu yëpp ñu ngi leen di wax xawal mhm. daa te mooy lépp loo xam ne nii daal tege ci sa loxo te kenn du laaj fan la mujj mhm. may daaxa wala tamu dem may mm-hmm. na mm-hmm. ko ñee ma tam xewal minu ci moom mi nu ko tukkee ci yàlla mm-hmm. lasi mu fàtte maa la nga xam ne kaana nekkoon na yeddomoo di woote indi yi jëm ci ñoo xam ne yeddomoo di ñaan indi yi jëm ci moo ne ci njëkk ne yàlla may na ko xewal léegi nag daf daf lay fay ko fàtte mboolee li nga xam ne lii ko doon ñaan yàlla an ne yii ni daf ko daf leen yàlla li yëpp di la ngir mu sànko am sa délee ci yoonu yàlla leen mhm. tamata na nga bànneexu mhm. bu góob rek ci a mhm. xale na lu néew innaka nag yaa min asaabi naari bokk na ci bokk na ci way safara yi waaye jooju da nga xam ne damay jaaxle woon ñaan borom bi tabaraka wa taala ba nga xam ne lii nii dem na ba jaaxle ga nañ mu wër ba tikuwaat dikk di yemale yàlla ak keneen kooku ne na nga ko wax a ko sa kéemal gi nga weddi dem di wéeruwaat ci leneen léegi na nga kontaan bànneexu si tëkkee ba loolu la mhm. mu lay xamal ne boo dee safara nga jëm mhm. ndax dangaa ñaanoon yàlla mhm. ba ba xaajo ba nekkoon benn buur boo xam ne bi ne bu soxot la woon benn waaye nag dëkk ci mihraabam bi nga xam ne bii ni bu ñëwee mu doxee ko gannaaw jël bindukaayam dikk ci place boobu la bind bi sama taax bi ko fi ka xale la innaka mina saabiriin bi <laughs> ñëwee. Adja ñëw benn bés rek nit ñëpp ngi daje ba dara def lu nga xutba. Mm. mu yegg ci ñun ba bëgg a xutba. Mm. gis nga ne moom la ko ci. Mm. waaye dafa wàcc ñu indi ba xay sa xutba. <laughs> <laughs> mooy seen laaj dugub bi. mooy seen laaj dugub bi. aman daa ak nga xam ne alxuraan mu ngi laajte mu ne aman daa ko xam ne moom xaaral ba aja tabax na la gëm na yàlla lool mu ngay tabax loolu di ko jaamu ana layla ci biir guddi yi waxtu yi guddi yi mu ngay tabax ci yàlla mu ko ñaan itam saa ji doon bi moom aji tuddul la waa xaraa iman daa aji taxaw itam da mu ngay wat ne ko allah xala taala xala raajilan daa ji sujjoot mm-hmm. wa qaa'iman mu daa ji taxaw di julli mm-hmm. yansuru mu ngay wattande ko àllaaxira àllaaxira waaye joo muy yaakaar rahmatu rabbi yërmande boromam muy àjjana mm-hmm. ndax waa jooju de dañ ko lëlleeg koo xam ne kii nii bu ñaanee yàlla te yàlla nangul ko ñaan googu de mu doxee gannaaw dem weddi yàlla ñaan ko itam mu dem jaamu jëm keneen ndax ñu ñu leen leen kenn du leen ñu moo tax mu ne xul xul waxal ne xale yëpp yooyu ndax danañu moom. Mhm. xale si ne gars ñi nga xam ne ñaar lu mooy danañu xam. Mhm. te ñi nga xam ne ñii xam nañu. Mhm. ñooñu dañuy gëm yàlla. dañoo tabax lu. dañoo jaamu ci guddi dañuy sujjóot. dañoo wattandi ko àllaaxira. dañoo yaakaar yërmande yàlla. wala seen ndax ñooñu nag dañu moom ñu fi ak ñi nga xam ne laajal na mën a xamuñu. te ñooñu buñ jaamoo buñ ñaanee yàlla ba mu fajal leen aajo. aajo boobu la dañuy ñëw dañoo mujj nag yóbbu yàlla. aajo boobu ñu dellu ko dugalaat keneen inama yatazakkaru naka dana waar dana waar rek ulul albaab borom xel yi xol xol waxal yaa ibaadiya yéen suma jaam yi man yàlla allazina ñi nga xam ne amanu gëm nañ dafa ragal leen rabbukum seen borom na ngeen ragalee yàlla jaamu ko topp ndigalam ñu nekk na ñaan la ñi nga xam ne asunoo rafetal nañ yaa say dunaa ci lii àddina ñaan la xamane ci yërmande waa abdoulahi suufas yàlla waa ñaata ak yaada gannaaw nag suufas yàlla yaada képp ku ci xam ne ci nga nekk ni ci réew wala nga nekk ci dëkk wala nga nekk ci kër jamonoo fexe ba rafetal ko jaamu kon nag ko bàyyee koo dem ci gën a suuf koo xam ne sini dafa mën a jaamu yàlla jaamu boo xam ne génne gu rafet la waa abdoulahi suufas yàlla waa sanatu nee na ak yaada innama yoofaa naka dees na matal asaawiroona way muñ yi mm-hmm. dees na matal ajurahum seen fay da mm-hmm. xay re hisaab ci loo xam ne lene duwut duwut benn benn hisaab mm-hmm. ci loolu rek la nee na ñi nga xam ne ñi ni ay muñ lañ ay muñ kat lañ ñu ni la borom bi tabaraka wa taala daf le naa fay tiyaaba joo xam ne lii ne amul benn rek la boo xam ne dina dañ ko rek la moo tax ba ñëw na ci dis ne ba yamal xiyaama jullikale yi dañuy indi peese kaay di leen fay sadaxakat yi dañ indi peese kaay di peese di aajikar yi dañu indi peesekaay peese leen di leen fay mm-hmm. mu mm-hmm. a jóoral seen fay gi de waaye kenn du ko peese mm-hmm. dañ leen fayee fayee fay ba ñi nga xam ne daaw ñu am nattu noonu ngéej daal lay leen tamit dañoo nekk ci àdduna ñu daan jël si lu daan si seen yaram bi ndax ñu mën leen a fay tey fay bu mel nii xool na leen indi naka man ma su ma dana ma ana bu dama jaamu allah yàlla moo la sant aji teel a lool ñu naan ma ma nekk awalul muslimin da gën a dëggal benn jullit bi. Mm-hmm. man a nekk ab jullit ci biir xeer wi. Mm-hmm. loolu tam moo xamal yeneen tubi. Mm-hmm. mooy njël mooy jullit bi nga xam ne nii moo njëkk wi. moo jiite xeer wi itam. xool na a si boo xam ne benn bu màgg la. wal na leen mhm. allah na yàlla ambudu moom lay jaamu mhm. mox la san daaji setla la wa ñaal ko diini suma diina mhm. yàlla lay jaamu naa ko seet la suma diina fambadoo yéen nag jaamu leen maa surtout lu leen soo min doo ne walis yàlla man day man yàlla lay jaamu su boobaa nag lëkkum diinu fu ma diin diin wal na leen inal xaas ne nag way perte yi àlla sunu ñoo nga xam ne xas loolu perte nañ andi moom seen bopp nga xam ne li mooy perta boppam moo ne bu jëlee boppam wér ko ci keneen te nga xam ne daal borom borom bi borom bi nga dénk sa bopp da nga xam ne sa imaan yaa ngi ko xëy ci yàlla booba yow yaa moom sa bopp gis lu neen di saaga en refan bi xurral jamono yooyu nag ngay nekk xurral bu baax a baax a baax waaye nag fépp boo xamee ne bi ni yaa ngi gëm feneen wala nga xam ne yaa ngi wéeru feneen rek ci jamono yooyu ko xamal ne perte nga sa bopp ndaxte ka leen muy yàlla dafa yore maa ngi seen boo xam ne bi ne fa denc rek lu jamono yàgg yàgg dañ ko fa fekk moo xam roobu buñ buñ denc la wala muy jëmm juñ fa denc wala muy jëf juñ fa denc wala muy niini juñ fa denc wala muy yaakaar juñ fa denc wala muy ragal yàlla juñ fa denc lu jamono yàgg yàgg rek boo demee da nga ko fekk walee na nga xam ne moo duwul yàlla luñ mm-hmm. fa denc rek foofa perte na mm-hmm. moo tax nag innal xaasiriin naka way perte yi masi mm-hmm. ni ñoo ñi nga xam ne xasula perte nañu am doom seen bopp waaléim perte nañu seen ñu ñu tam ndaxte dañ leen dénkul yàlla yi amatum leen jëmale ci yàlla kañ foofa ñu yaakaar te du yàlla foofa lañ dugal seen bopp foofu itam fa lañ yóbbu seen njaboot ba tax nag perte nañ perte seen bopp yamal xiyaamati bis benn ci alaaye lay na saalika loolu la wéeru fu doonul yàlla woo moom alxuraan mooy farta al mu benn farta xam ne génne bu bër la loolu ñaan leen ñi nga xam ne dañoo fekk seen bopp nga ñàkk gëm yàlla wala ñàkk wéeru ci yàlla ñaan la leen mun boo ci seen kaw fu la doon ay ker ay ndëpp mel ne naar bi safara nee na am na ay ker loo xam ne dañeen ni ker lañ koy nirelee te muy ay ndëpp yoo xam ne yeneen def dina tiim ci kaw te fekk ci safara lañ ko liggéeyee ba maintenant te nekk na ci seen suuf moom itam kulaloon ay ker te muy ay ndëpp yoo xam ne yeneen def dina tiim ci suuf ñu lalal leen ko loola ci la ñuy tëdd te fekk loolu la nee na ci safara la bokk daanaka loolu la ma wax ci affaire ñi tànn seen bopp ak ni ñuy tànnee safara bu xawee mu dana ragal loo allah yàlla fii ci moom ibaadu mm-hmm. mooy jaamam mm-hmm. yi loolu la boo gisee yàlla dafa leeral mm-hmm. dafa bëgg jaamam yi ragal ko su ko defee ñu wattandiku ko buñ ko mot wattandiku woon ni ñuy def mooy dañoo gëm yàlla pour koy jaamu ci anam boo xam ne bi ñu jaamu pour gërëm loolaa doon yaa ngi baade yéen suma jaam yi yàlla nee na yaa ngi baade yéen suma jaam yi fut fa xool na ngeen ma ragal waaye la seen gaa ñi nga ba wattu na ko nañ ak taaxootan jaaw te muy xëyam ak yaamudu waa ñi ko jaamu mm-hmm. waa naa wattu ñu dellu indi laa jëm ci yàlla mm-hmm. ñooñu de mm-hmm. lawam ñeel na albusra mbég ko ma bégal baadiyee suma jaam yi xaalis si ne yëpp ma woon dinañu dégg ak xol wax nawet bi wax nañu topp asana wax di nga xam ne moo ci gën a rafet walaay ka ñooñu le la seen ñoo ñi nga ah na ne allahu walaay ka ñooñu le ñoom ulul albaab ñooy borom afa man daa ko xam ne xaqa war naa lii ci moom xene mat moom sal kaddu mbugal koo mm-hmm. xam ne kii ni kaddu gañ waxoon ne ndaam ndaam ne jahannama mm-hmm. dafa war ci kawam mm-hmm. ba léegi mu war naa dem jahannama ndax kooku ne dañ ko nirale ak koo xam ne kii ni moom ku gëm yàlla la bu gëm yàlla googu ne dafa ñor di jëmale ko ci àjjana lu koy bi saar bi la oh. laaj koo xam ne kii dañu laaj rek ki nga xam ne kii moom la doon toll moom lañ ko doon tollalee sax moom da ruy bi bëri na ci saar bi loolu ñu bëri ci saar yi bëri ko ci doon saar abaana maa yow du ma xasul da nga da nga xeetli mm-hmm. man koo xam ne kii nii min naa la nekk na ci safara mm-hmm. koo xam ne kii nii mm-hmm. nee damay laajte koo xam ne kii nii dafa mooy yàlla de mooy yàlla du kàddu mu bugal war ci moom ndax kooku la dañ ko ni dëleeg koo xam ne kii nii dafa topp yàlla topp yàlla ba eh, texe war ci moom nee na waa jooju la nga xam ne dafa mooy yàlla du kàddu mu bugal war ci moom dañu ne dafa dañ dañ ko bugal ci safara kooku la yow mënu loo koy xeetli ñu ci safara maa te moom moo fa xam dugal boobu ngir ñàkk a gëm ki nga xam ne kii ne mën nañu ci lu bu mu génn ci safara mhm. mooy koo xam ne kii ne dafa gëmoon yàlla mhm. dem yàlla boobu nag mu boole woon ko ay bàkkaar nga mhm. déggee ñu ne yëpp ñi amoon gëm yàlla te yore bàkkaar ñii la ñuy tunu waaye koo xam ne kii ne amuloon gëm yàlla kooku kenn du ko tunu laakin li fi nekk nag li fi nekk ñi nga xam ne ittaxaw ragal nañu rab moom seen borom. Mhm. mooy loolu ñu naan leen xolofun peeg. Mhm. dafa xayaa yoo xam ne yéen a nekk na ci kawam. Mhm. xolofun yéen a ñu peeg. man ni yéen yoo xam ne yéen a ñu tabax la. te jëlee dana daal mën a daa ci fanam. wala naar ay yoon de. ñi nga xam ne ñii ne dañoo ragal yàlla. àjjana la ñuy dem. àjjana jooju la ñuy ñuy ñuy nekk nag. plan boo xam ne bii ñu daal. bokk na ci manda bokk na ci kii maanaam tabax yi fay nekk. ay tabax yoo xam ne yii nii dañuy féete kaw. yii féete suuf yoo xam ne yi ne ay yoon la mooy daw ci diggante wa waa dak laay loolu dayab yàlla la laa yox na bu du wuute allah yàlla ak niaali la alantara xanaa xamuloo ana laa naka yàlla am sala wàccee ne mina samaay ci kaw ya asamaan maa ndax fasala ko mu soob ndox moomale ñenaa bi mu nekk ay sew na bir àbb ci suuf suma yoxla ci topp mu génne yéey ji ndox boo ndox moomale samaan mbay moo talifan boo xam ne bi ne aji wuute alwaanoo ay melow da ngaa xamoon ne borom bi tabaaraka wàcce wa taala mm-hmm. wàccee na ndox moo xam ne ñu ngi ci asamaan la ko wàccee mm-hmm. dugal ko ci biir suuf mais mm-hmm. ba ñëw ndox mi léegi dootu loo gisati waaye nag dem na ba nga xamee ne bii ne boo gasee benn mètre ñaari ñaari mètre rek mu nekk yenaat na ay taw la yoo xam ne yéen dañoo bal di génn ci biti rek na si yaa ñëwee li yëpp am ndox la woon moo xam ne ñu asamaan bi moo ko tawoon mu def ko nag mu nekk ci kaw suuf mhm. su ko defee mu nekk mbënn mhm. moo xam ne nii li ci lay jëlee am mbay mhm. mbay yoo xam ne yéen yu naan la yële yu xonq la ñuy doon yële nekk yu weex yële mel ni yële mel na boo xam ne ne génn nag àll bi naat na mm-hmm. ci ndox moomu ne moom la tawoon mm-hmm. ba koo koo seen rek mu nga werta mm-hmm. rafet loolu saa su rek su mu yee ji topp mu dellu yëngoo ci wow laa nga gis mu fabal mu daal di su ma loo toog mu def ko mu taawal mu dem poñat boo xam ne dinañ dem nañ ba am ñaari a mu gis mu commencé di jaay daana ngelaw loo xam ne dina bokk na ngelaw daan am ñu naan jaas bi dikk na jaas dikk na su ko defee rek ne gis gannaaw ba nag bi mu def mu ñoxoo dafa dafa ñax mu nekk na ci loolu. ba si karawaale. léegi wala lil islaam ci islaam ba mu gëm koo xam ne kenn yàlla dafa yaatal dënnam leeral ko ba léegi sax moom gëm na yàlla koo ba moom ala nool min ci leer ñu rëddi wutukee ci boromam nee ndax waaye yoo xam ne bii yàlla moo ko baaxee fukki dënnam dënnam boobu la islaam mën ci dugg bu baax bu mu doxee ci gindeeku bu baax ba léegi mu nekk ci leer koo xam ne kenn yàlla ko war sagal ndax kooku ne dañ ko ñu lënde ak koo xam ne kii ñu xolam dafa woowam de kenn du leen musale kenn du leen ne danga def mm. kon nag fa way lan toroxte leen xaasee di ñaan la way woowi xolo boobu seen xol yi ñu zikri laa ci fat fàtte yàlla mm-hmm. danaa kenn du leen ni lale nag ñi nga xam ne seen xol yi dañoo wow mm-hmm. ba duñu fàttaliku yàlla mm-hmm. kon ñoom ñoo ñu torox ñu ne nekk ci réer. ne bii nii ci biir nag. ñeneen ñoom ñoo moo leen rëdd yi. allah yàlla na su la wàccee la ahsana la bisu gën caa rafeti waxtaan mhm. lépp loo xam ne ni ñu koy waxtaanee mhm. a rafet mooy alxuraan mhm. loolu la ne yàlla moo ko wàcc wàccee di taaroon li moom di mu mu dee téere mutu saabiyan mutu saabiyan boo xam ne bii dafa niroo ñi nga saari ñoom ne ni ñuy niroowee masaaniya muy téere boo xam ne bii ñaareel la dafay tudd tëkku ak euh, dafay tudd àjjana ak naari dafay tudd àddina ak àllaaxira dafay tudd dañ tudd tëkku ak dëdë mhm. dafay tudd jaam bi ak borom bi mhm. toujours daal dafay tudd daal ay ñaar mhm. par ñaar daal la koy dana koy tudd mu de lu muy ñaareel nga xam ne ñaare bu tuddee xisa xisa boobu dana ko dellu bamtaa feneen téere la boo xam ne dañuy topp saxee bu dana lox mhm. ñu a ci moom ñu loolu dul la seen téere ñi nga xam ne yox solo dañuy ragal rabbum seen borom téere mhm. la boo xam ne bii nii mhm. ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom ñooñu la seen téere yi na topp nooy ñu loolu dum seen téere yi bu xulóobum dafay lox boo ne bii nii nag moom ci saa bi mhm. waaye gannaaw ba nag mhm. del del yi danañ gën a nooyati mhm. ndax dañoo xam ne mbugal moo fi nekk ak dégle mbugal mi mooy loxol der yi dégle gi mooy dalal xel yi su ma ñu topp dal juróom seen der yi ba xolal moom ak seen xol yi ilaa zikrillah jëm ci tudd yàlla baraka téere bi wata laa njëbalal yàlla la yaa ma dee yàlla dina jëbal bi ci moom ma ne soo bu soob ba ma yóbbul koo xam ne kii ni sant na ko allah yàlla fa maa loo ñaanu ko ñu naan jënd ak jëbal afaman daa ko xam ne yett xëyee dana fegee di waju di waju si ci kana ci kanamam soo xam saa bi ñaaw mbugal yaamal xiyaamati yaamal xiyaamati bis penc nee na aba man daal ba xam ne génn yett xëy dana fegee bi wa si ci kanam moom coona sabi ñaawu mbugal yooma xeyaw di këy bi mm. waa joo xamee ne jén yi bu yooma xeyawee mm. su mbugal ñëwee mm. amul dara dara loo xam ne mun na koy défensé mbugal moom a nekk lu mooy karkana moom bu mu caa jëñ ak dënnam boo xam ne jén yi moom la caa jëñ waa jooju ne ndax dañ ko nidale ak koo xam ne kii ni moom ñu ngi koy jaarale ji àjjana xewal goo xam ne jén yi fekk na ko fa xewal googale mu ngi koo tàccoo ak karkana moom mbugal ak xewal googu dem mu ngi koo tàccoo ak dënnam Mm. waa yoo xam ne ñu nii mm. suñ bëggal jotee mm. bëggal moomu da amul lenn doon ko différencé li mooy karkanam ñu ci ay jëy wala dënnam boo xam ne bi ne daf ci ay ci waajo yi dañ koo xam ne kii ni xéwal lay dajee ci àjjana da ko tàccoo ak karkanamam ak da ko tàccoo ak dënnamam yëpp ni doon ñu de ki nga xam ne ki gën a yées hmm. mooy ki nga xam ne ki nga xamee ne mbugal moom hmm. amul lenn loo xam ne moom la ko mën a défensé lu mooy karkana moom boobu de hmm. wala beneen bi kooku moo gën a yées comme nag gannaaw moo gën a yées nag waxee la waxee na leen ñoom ñu ngi de mooy ne faale bi ne ñeexal way tooñ yi ne leen sookoo mos leen maa mbugal mi nga xam ne kon du nekkoon ñun dak bu bona daal ci faagu bu ñëwee bu ñëwee dajee mbugal moomu de da ko songee seen dënn yi ak da ko songee seen karkanam yi ñu dégg ñu naa leen eh, toogoomaa ko ma faj si woon kàddaba weddina allazina ñi nga xam ne min qablihim njëkkoon nañu leen faataam di këllit alamsal mbugal ne su laa yasmaun boo xam ne bii nii ñoom duñu ko yëg mm-hmm. asa xoo mosal leen allah yàlla ak xisi trofe mm-hmm. da xayaat ji dund ak dunyaa bi alladina gaa yi nga xam ne min qablihim jëkkoon nañu jëkkoon nañu yéefari xeet mm-hmm. na yéefari yoo xam ne yii nii ñoo jëkkoon nañu yéefari xeet wi mm-hmm. yonente dajewoon nañu ay yonente ci seen jamono mm-hmm. yonente yooyu la wax ñoom itam ñu ñu weddi leen asa fataam bi ka leen anasam bugal bi nas laes laes moom na foo xam ne fii ni ñoom dañu ko yore asa allah yàlla ba nga xam ne moom a ñu leen dugal mm-hmm. ak dugal moo gën a màgg la kaanu bu ñu nekkoon yaa na mën wala xal sabab naa sodd nañ mhm. nañ li naa si ñaan liñ si alquran ci alquran bi lee mhm. ñu ko limal leen bépp misaal mhm. alquran bi nee na misaal bu nañ ko fi laa loo ndax ci ñoom ni ñuy zakkaroo na ñuy waar ñuy fàttaliku xoraan nekk alquran arab yi di arab def nañ ko alquran yoo xam ne jëriñ ci làkku arab lañ ko def ndax làkk la boo xam ne bii nii international la boo dem da nga ko da nga ko war a fekk làkk la boo xam ne bii nii itam ni ne maana yu ne muy xayra si ne lewajin alxuraan yoo xam ne ji dugub borom ak jéng mhm. ak wóote nekkuñ bi laa loolu ndaxte ñoom ñett na xoolal danañu ragal kéefal xaraba mhm. saddana allah yàlla mhm. ñeel yàlla def na benn misaal boo xam ne bi ne def dafa bokkaale ak waa joo xam ne ji dafa wéeral yàlla jàngoon nañ ko nag ay ay misaal yu bëree bëree bëri waaye nag misaal yooyu la bi ci gën benn bi ci gën a leer bi ñuy bëgg a jàng si ba na bii daal dafa war a nekk aaya boo xam ne bi nit ki daf koy déglu bu baax bu mhm. demee nag ba wéet moom kenn nag mu commencé moo ko di ko dund mhm. seetlu ko bu baax a baax daal mhm. su boobaa daal dana gis dana xam daal toj yi di wéetal yàlla ñu mu gën a noppalee waaye ba leer na daal bu mat a dégg bu ma a seetantal daal yow rek nga xam ne da ngay toog ba nekk yow nee na xanaa santee na allah yàlla masal misaal mm-hmm. misaal nee na yàlla nga def benn misaal mm-hmm. koo xam ne bi nga def di misaal mm-hmm. waaye joo xam ne jine dafa wéetal yàlla ak koo xam ne kii ne damay bokkaale ci yàlla mooy lii moo war a rajulan benn waaye boo xam ne fii nekk na ci moom so kaa way bokkaale mutu saaki soo na ñoo xam ne ñii nii way xëccoo lañ benn waaye boo xam ne bii nii ci nettali daal da ngay mbindaan boo xam ne bii nii ay gaay moom muy leen di liggéeyal na ci bëccëg bi mhm. te ñoom nag ci boobu ñoom ñoo ñele mhm. ñoom ñoo bokk jën mi mu leen liggéeyal mhm. te ñoom leen nag jubawuñu mi daan bi nag ñu di ko xëccoo bët bu set yooyu bu bu demee commencé yenul kële kële woo ko ne bu kaay yenul ma lii bu demee mu nga yenul foofa kële ne ko lu tax ma la waxee lii ba ndax yenul ko mu ne mu nga xëy di ko toogal kële ne lu tax boo yenul lii tey na la wóor na tey dama la fay diggante loolu daal ci laa woon lu subaak ngoon bët bu set muy benn waay hmm. war a julan ak benn waay boo xam ne moom hmm. salaman aji jébbalul la la julan ñaxat benn waay képp hmm. ak beneen bi daal boo xam ne bi ne moom di génn kër képp ci la dund waaye yooyu la itam doon koo xam ne kii ne ko am xel la ko am yërmande ci mbindaan su fekkente ni liggéeyloo na ko dara bala wàcc di jot sax mu wàccee ko wala bala muy sonn sax mu wàccee ko ñaar ñooñu ñaar ñooñu le nag mu ne kan moo ci gën a ñu daan boo xam ne dañuy dafa ñu bëri ñoo ko seq mu dund mu dund ci ñoom. ñoom mm-hmm. nag kenn ku ne am na loo xam ne ñu ne moom koy liggéeyloo. Mm-hmm. bu demee commencé liggéey fii kële woo ko. Mm-hmm. bu demee bu dem nga liggéeyal kële kële ne soo soo resul léegi. du ma la fay. kële ne. doo wàcc ndax di wàcc jotaxul mhm. kawe na ci suba ba te defal ko ma mhm. naan goy moom dafa seeti benn waaye boo xam ne bii nii moom kër gi dafay yëngu yëpp ci kàddum lay yëngoo mhm. lépp lu faa doxe tam moom moo koy doxal mu ñëw bind ci moom kooku na nekk koo xam ne kii ko am yërmande la mu ne ñaar ñooñu kan moo ci gën a noppalu ak kan moo ci ëpp njëriñ waa ji njëkk ji mooy ku bokk ku yàlla ak leneen ki nga xam ne kii nii moo bind ci kenn ki mooy xam ne moom dafa wéeru ci yàlla mooy xale suñu yaay ndax ñoom ñaar nañu ñemoon mos lañ ciy misaal. Mm-hmm. mooy ndax ñaar ñi ndax yemoon nañ wala yemoomuñ. Mm-hmm. ñaar ñi ñu yemoon. mu mm-hmm. ne ñaar ñi yemuñu. ñu ne déedéet ñaar ñi de yemuñu. mu ne kon nag alhamdulilah ñu yàlla yàlla. ba léegi nag su loolu de bu ñoom laajee la mën a dañoo xamul waaye bu ñu xamoon bokkaale ni mu méttee. koo ñu bàyyi ko ndax bokkaale moom. moo di moo di bi boo xam ne bi ne dafa yore njaati gi yu bëri. war nañu da ngay seet rek benn baar ñu ne bi nga xam ne bii dafa bëgg ñaari magasin bi ñu bëri. waaw bu ne mu ngay taxaw ci magasin bi rek daal mu ngay séntu bële. Mm-hmm. bu séenee ko fa dugg mu ngay séntu beneen baar ñi. Mm-hmm. baar ñi ne boobu rek nga xam ne moom ci coobareem ci lay yenoo. Mm-hmm. ci coobareem ci lay commandé. ci teewoo rek ñaari magasin bi mu bëgg a làngale rek coono bi mu ko indil rek. bale fi léegi as boobu léegi bu ñoom laa yàlla moo duñu xam. te mm-hmm. naka naka yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. gaa ñi naan da ngay da ngay faatu. Mm-hmm. boo faatoo ñu noppalu. ñooñu ne dañoo xamul ne. te naka naka yow ma yitun aja faatu nga. waaye noonu naka ñoom ñoom itam ma yitoon koy faatu lañ. ñu ngi naan bàyyi leen ko rek bu dee ñu noppalu. boo dee itam du noppalu ndax ni ngay dee ñoom itam noonu la ñuy dee. su la kon topp naka yéen nit ñi. yéen a moom sa yaama te du penj. tax soo si mooy da ngeen xuloo ngeen dugg ko seen borom.